léegi loolu noonu nga xam ne ci lañ jëm ci nax nit ñi fexe ba yore seeni xel nox bi nekk noxu xel boo xam ne dañ naan yaram bi defal lu la neex xel mi jàpp ne kon moom libre na ndax nee nañ ko na yaram bi def lu ko neex xam ne lu yaram bi di gën a def lu ko neex ñoom ñuy gën a téye xel bi foofu la erreur bi nekk mooy bi ñu jaawalee ñaari liberté yi liberté wu xel ak liberté wu yaram lan ñu jox si liberté wu yaram yëpp naxee nañu ko ba ba restreindre ko suñu liberté xel kenn si ñoom dafay wax ne dictature sax xam nga adi adu sas la li mu wax mooy dictature technologique la wax te li mu wax lu wér la ci ne àdduna bi ci dictature moom la jëm ci ne benn yoon rek boo fi nekk boo xam ne moom la ñëpp moom lañ topp loolu ñëpp képp ku ko génne jàpp ne bopp la ñu jabolise bu ñu mënee dal sa kaw sax jëfandikoo violence lañ koy def léegi keneen ci ñu mujj yi dafa wax ne moom le politiquement correct nee na moo gën a sax tar dictature ndax nee na dictature dafay jëfandikoo yar jëfandikoo kàttan xëy na pour napp nit ñi ba ñu mel ni mu bëgg ñu mel ko mais mu ne le politique le politiquement correct bu fekkente ne dañ ko instauré ci réew yi instauré ko ci àdduna bi nit ñi dañuy def ñu tuddee autocensure pour mun a dëppoo li normal mooy kenn ci nit ñi du bëgg a ñàkk normal kenn ci nit ñi du bëgg a ñàkk dëppoo ci jaar léegi ba tax bu waroon a def wala bu waroon a wax lu wuteeg li ñu jàpp ne moo jaar day obligé bàyyi ko même bu fekkente ne sax gëm na ne loolu mooy di jaar. il est obligé mu def loolu pour mën a pour mën a bokk léegi loolu mooy di am fi mu nekk nii Occident mooy seen intellectuel yi ñu ci bëri si ñoom amatuñu courage wax loo xamante ni day nekk en opposition ak système bi nga xam ne moom moo am ci àdduna bi. moo ne gis nañ ne lu bëri ci ni àdduna bi di doxee jaarul ci yoon ci wàllu politique wàllu finance wàllu yu bëri xam nañ ko mais ñenn si ñoom amuñu courage wax par exemple injustice bi am ci diggante Israël ak Palestine raar na nga gis tey. benn intellectuel ci seen média yi foofu dañ koy faral di invité mu ñëw ci ay plateau mu ñëwee jël critiquer benn décision boo xam ne état israélien bi jël na ko ci ni mu colonisé Palestine sañu ñoo ko ñemewuñu léegi boo commencé di dugg ci yooyu di wax ñu ne la antisémite la wala complotiste la daal di lay liquider médiatiquement xam nga dañuy wax ci wàllu liberté pour wan la li ma la doon wax ci wàllu amal daam ci nit ñi naxee nit ñi ci baat yi ci ne liberté dina fekk mu dëppoog li ñu bëgg moo xam liberté d'expression la wala liberté bu mën a doon dañ fi def temps yi caricature ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne ko ko defoon dafa am benn xale boo xam moo ko rey président France bi génn di wax ne waaw seen dëkk dafay défendre les libertés nangam sàngam kon dafa bëgg a wax ne loolu waa di def ci di wane ay ñaawal ñuy ñaawal yonent yàlla boo xam ne ay milliards nit ñoo ko gëm gëm ne yàlla moo ko yebal ku ñu war a fonk la ku ñu war a respecté ku ñu war a wekk la te kooku li mu def day xotti warmaam yu mer ci loolu kon mer boobu bu yoon waruñ cee mer kon li mu bëgg a wax rek en résumé mooy gëm bi ñu ko gëm ak fi ñu ko teg waruñ ko fàtte nit simple la boobu dañ ko war a mën a jaaxaale dañ ko war a mën a kooku wax ji wax ji foofu la mooy li leen gën a métti ci jullit yi mooy jullit yi jàpp di ñu jàpp seen diine ba léegi jàppee ko mu sell cell boobu nekk ci diine gi lañ bëgg mu dañ ndax pour ñoom leen rek moo sell mooy seen système démocratique loolu kese mooy di seetlu nañu xam ne kenn waru koo laal kenn waru koo critiquer kenn waru koo mettre en question mais yi nit ñi gëm ci yu ñu jàpp ne ci ay yàlla la jógee ñu koy gëm ak di ko fonkal ak màggal yépp jàpp nañ ne ay kasaw kasaw la yoo xam ne déedéet waruñu koo jël di ko sellal wala di ko teg fenn loolu benn beneen bi ci des mooy buy defal ko jël leen benn humoriste bu tudd Jodone Jodone Mbalabala franco camerounais métis la humoriste la buy def ay. spectacle nit ñi di reetaan mu nekk bu am talent koo xam ne France moo ko gën a duroon ci seen humoristes yi mais dañ koo liquider médiatiquement kenn du ko wane ci benn média fu ñu toll ñu koy critiquer fu ñu toll ñu koy porter ay plainte di ko yóbbu justice di ko traîner ci justice pour pour ko sonal day sax dem ci ay dëkk ba pare spectacle bëgg a louer benn salle wala dara maire ba mooy génne bi ci daal sama dëkk kii fi ñëw ndax antisémite la antisémite dañ leen nangu antisémite lan moo ko yóbbee loolu dañ koo mos a invité ci benn plateau télé mu def fa benn sketch boo xam ni dafa solo comme ni rabbin juif yi solo di def ci loolu sketch di leen di leen di leen di leen xaw a ñaawal daal rabbin ab rabbin mu nga ko tëkkaleeg yonent yàlla Muhammad ibn Abdullah alayhi salaatu wasalaam ab rabbin dong la sol seen yére def loolu affaire bi nekk scandale ci seen média yi média yi gars yi génn seen genre soi-disant experts yooyu di toog ci média yi nga xam ne ñoom ñooy xaatal nit ñi di leen wax ne jaaroo ko jaaroo ko génn commencé ndax mën nañoo reetaan ci lu nekk non reetaan tamit am na mais dafa am ay limites parce que am na yoo xam ne waruñu koo bàyyi ratata commencé def levée de bouclier contre généraux loolu tamit métti ko mu frustré ko ñu gën a yokkaat ci xam ne karaw bi continuer di persister ci loolu ñu daal di koy liquider ba ñetti ko amul benn crime bu mu def France bu ñaawal ay juif waxuma ñaawal seen yonent wala seen yàlla de ay simple juif wala critiquer Israël ñu liquider ko kenn dootul wax ay waxam jàppe ko benn monstre léegi kon ana seen liberté ñu wax su nit ñëwee dal ci rasulullahi alayhi afdalu salaatu wasta taslim mi yàlla yàlla nit ñi gëm ko jàppe ko yonent yàlla jël ay dese yu ñaawa ñaawa ñaaw dafa ko dafa ko ñaawale nit ñi mer ngay war ñoo mer ndax suñu dëkk liberté lañ jël mooy wane li ngay wax mu dëgg seen démocratie bi yépp ci genre nax yu mel noonu la nekk c'est faux li ñuy wax mu dëgg tubaab yi lañ ciy nax doomu aadama yi nax humanité bi naxaate boobu la yàq nañ nit ñi détruire nañ nit ñi ñëw nañ imposé ko ci réew yoo xam ne loolu sax bu seen i réalité dëppoowul sax ak seen sociologie ak seen réew seen histoire ak ni ñu doon dundee mu indi ay instabilité ci àdduna bi indi ay problème ñaata ay guerre moo fi am ci ay guerre civile ak ay renversement de pouvoir ay problème yuy am ci ay ci àdduna bi dul jeex te dara waroon ko lu affaire seen démocratie yi ñëw seen élection yi xam ne su leen neexee njuuj njaaj su leen neexee def lii loolu lu ne leen ci def ba ci américain yi ko doon jéem a dëpp dëppal sax seen bopp suñ commencé di fay li mu junee lan la Donald Trump wax dañ ko sàcc carrément la ne moom accepté woon na ne dëgg gañe nañ avant moom George Bush lan moo ko yóbbu George Bush fils lan moo ko yóbbu ci pouvoir diggante ak Al Gore parce que xëy na Bill Clinton gañe woon na papaam amoon nañ benn frustration ci benn mandat bi seen papaam ñoom waa Texas yi les Texans mu ñëwaat bi mu ñëwee jàmmaar Al Gore Al Gore moo ko gañe moo ko ëppale ay voix dañ doon defaat décompte Floride pour encore gagné ko gars yi dem dugg ci bureau bureau de vote yi fi ñu doon defee décompte yi assiégé ko te ki ki ki ki manigancé loolu Robert Stone la tudd kooku moo fal Donald Trump moo ñu Donald Trump ci pouvoir kooku moo manigancé woon loolu dañ téye ñu doon compté pour ñu bañ a compté bi heure bi jeexee gars yi déclaré ne ak George Bush moo gagné loolu démocratie la léegi ñi voté xëy na ñoom léegi lu ñuy def ñoom seen i vote compté wul ñu bëggoon ko compté gars yi dem xëy na ne leen ñu ko compté. loolu démocratie mais kenn ko bu xewoon Mali wala Guinée mu nekk scandale ay France 24 ak ay CNN ku nekk di ci wax mais comme États-Unis la xewee kenn du wax ndax ay complexe la ñun ñëpp ay complexe la ci ñoom ndax wan nañu ne seen système bi bu parfait bi ndax la femme amul dëkk buñ gën a naxee nit ñi gën a nax seen i citoyen bu mel ne Amérique seen peuple dara xamuñu ko ci peuple yi gën a nelaw ci àdduna bi lañ moom man maa ko wax ay benn benn borom yi xam-xam ñoo fa nekk ñu ngi ci université yi ay chercheurs lañ leen dundee nit ñi xamuñu leen sax presque duñ sax def ci média yi ñi nekk ci média yi di bépp bépp yépp ay politiciens lañu wala ay avocats wala ay hommes d'affaires est-ce que xam ngeen loolu seen i scientifique ñi ngi ci ay laboratoire ñu ngi leen defaral ñu nekk di def ay recherche nit ñi duñ sax xam seen tur ña fay nekk majeure partie ba fay nekk di mel mel di nax peuple ay nitu politique lañ ñu bëgg nguur wala ay nit ñoo xam ne ay hommes d'affaires lañ ñoo seen galan comme genre ñu naan doon ko defoon wala ay avocat wala ay star ñu nekk ci showbiz des consorts boobu mais ñi nga xam ne ñooy ay borom xam-xam yi toog di analyser di wax ci àdduna bi ni muy doxee ci peuple yi ni ñu seen mbir di demee bi mel noonu presque kenn du leen dégg moo tax dara xamuñu ko ci àdduna bi dara yaakaar nañ ne Amérique moo existé dara xamuñu ko suñu xale bu ndaw fii ci dëkk bi boo ko jëlee wala ko na benn mooy bu yàlla États-Unis nga teg leen ñoom ñaar xool seen degré d'intelligence ci wàllu xel ak li ñu xam suñ suñu xale bi yaroo ci suñu mbedd yi moo ko yaroo léegi dëkk bu mel noonu nga ko jël def ko benn genre royuwaay wane ne moom mooy modèle bi moom la ñëpp war a roy noonu la ñëpp war a mel parce que développé nañ ci wàllu àdduna am nañ alal am alal joo xam ne lépp yàlla ma yàlla baal nañ ko sàcc ngeen baal ma ci wax fan lañ ko jëlee seen alal ñu jot lépp ci kaw deret la tegu ci kaw deret lañ ko tabax ndax suuf yi ñu dëkk ci nan lañ ko amee nan ka lañ exploité seen terrain yi alal jooju fan lañ ko jëlee na nit ñi delluwaat xel ci alal jooju fan la jógee boo waxee ñun dañoo liggéey seen i maam dañoo ñaq dañoo sonn ci kaw lan ay suufu jàmbur nga ñëw fekk fa ay di rey leen jël seen suuf nangu exploité la fa nekkoon ci façon xëccoo bu ñaaw boo xam ne xëccoo alal bu ñaaw bu jéggi dayoo boo xam ne maanaam boo jàngatee histoire états-unis ci wàllu xëccoo alal ak ci liñ ci di lekkante pour ay jën da ngay xam ne ay nit lañ yoo xam ne ay valeur nekkul ci ñoom lu ñu tuddee valeur xamuñu ko li leen yitteel mooy am te ñëw Donald Trump ci seen pouvoir jiite leen mooy dëggal loolu ndax buñ mënee fekk nit ku mel noonu nga xam ne wax dëgg yàlla fii bu fi ñëwoon bale loo ko jàkkee sax mën ko sëñ bi baax ñu uti ji keneen ku ko bale baleloo jàkk sax bu ma ko doon wax ne su ma yoroon jàkk jëlal kooku mu baleloo man ko doy na ndax gisuma ci moom doxalin ak nit bu toll ne dinaa ko sax sant lu mel noonu waxtu balaa di jël réew mu ne mooy première puissance xëy na militaire nekkoon économique nga jël ko di ko jox ku mel noonu boo boo xamee dundal tuuti rek da ngay xam ne peuple bu mel noonu àtt na jël ku mel noonu di ko jox seen réew mu leen di jiite ñu gëm ne kooku mën na yëwale seen réew nga ne ñoom ñooy roy waayu àdduna àdduna bi fu jëm xamuñu ci lëndëm bu lëndëm crise lañ jëm man maa la ko Donald Trump nit ku baax alalam bu ko amee baaxul New York la ñëw ñàkk gi nga xam ne mooy ñàkk pauvre ya fa newoon ci seen immeuble yu infesté yu délabré yi fa nekkoon ci noonu la jaaree def ay spéculation ci wàllu immobilier ñëw dégg imposé ay ay règles de jeu parce que nee na leen yor na alalam pour nañ ko teggil ay taxes mu investir xaalisam ci yooyu la jaar dem ci banque yi jël xaalisu banque yi investir ko ba pare ne état bi bu bëggee parce que ay New York xaw na problème bi état bi bu bëggee ko investir dañ koy tegg taxes yi ñu tegg ko taxes yi mu investir te immeuble yi ña fa ñàkkoon dëkk ko mu génne leen ci lu ci dàq leen ci yu mel noonu la jaare am alalam bi mu demee ba mu alal commencé dugg ci wàllu showbiz ak ay affaire mise ak lépp loo xam ne jaay-jaay laa ko bon ak jigéen ñi ñoom di taxawaalu ci wàllu ci milieu yooyu ci ñoom ci yooyu la nekkoon ñu xam ko ci yor jox jox la ñuy ñaaw yoo xam ne wax jorfet sax ko wax ci di nit ñi gën a suufee ay jikko ci seen réew yi ci la bokk nit ku mel noonu ba koy jël di ko jëfee système bay fal nit ku mel noonu rek moo war a wane système la boo xam ni ay valeur ak liy defar nit taxu koo jóg ndax bu doon système boobu système bu baax la ku mel noonu lu mën a wax a wax a wax lu mu yor ci alal ak lu mu mën a def ci propagande lu mu wax a wax a wax baax ci pouvoir suñu réew mi sax ñu bëggoon fal ko fi mën a fal wax dama daan mu dem ci réew ba ñuy wax ne mooy exemple démocratie nu mën a jëfandikoo système bi baax ci pouvoir moo lay wax ne la kon système bi baaxul wax ji wax ji baaxul système beneen bi ci des mooy dëkk bu mel États-Unis ñaata million la ñaata état naka lañ amee doole ñaata parti ñoo fa nekk ñaata parti ñoo fa nekk politique ñaari parti politique ñun suñu réew mi sax fi nekk na ñaari parti xëy na naam bëriwaay bi wax problème la mais lan moo tax seen dëkk ñaari parti politique yooyu depuis xëy na ba ñuy soog am indépendance bu parti yi noonu la tëddee woon mais dem na ba benn jamono ñaari parti yooyu ñoo démocrate yi ak républicain yi am na ñu fa doon jéem a góorgóorlu di jéem a fexe taxawal ay lu ñu tuddee ci parti mooy ñoo xamante ni bokkuñ ci système bi mooy ñoo xamante ni dañuy ñëw remettre en question système bi ñu établi jéem a poser seen i candidature pour accès ci pouvoir bi delloo war nguur gi nit ñi mais loolu tamit du du réussir du jàll ndax doole bi nga xamante ne ñaari parti yooyu am nañu ko ci réew mi kon bu ñu xoolaatee démocratie bi ñuy wax ak gëdd bi ñu koy jox dayoo bi ñu koy jox ak wax ji ñu ciy wax lu ñu mën a xoolaat mu des nag wàllu nguur ak àtte ci nguur ak teg ko ci yoon loolu lu lislaam jox ñi te bu rëy la lu lislaam jox solo la ñaax nit ñi góorgóorlu ci loolu ndax ci li defar seen dund li ko yëw na loolu bokk na ci yàlla ne inna allah yamurukum an tuaddu amanatiha wa ida xakamtum bayna nasi an taxkumu bil adl inna allah ni'ma ya'idukum bih inna allah kana samian basira mooy suñu borom subhanahu wa taala sant ñu leen nañu bu ñu joxee kóolute ci li ñu jiital ñu sàmm ko ba aaral ko ñi nga xam ne ñoo ñu ko jox te bu ñu àttee ci seen diggante ci kaw jiital kooku ñu jiital ñu def ko ci kaw maanu loolu lañ jàll sant Cheikh Sami Tey rahimahullah yàlla loolu mën nañu wax ne dëgg-dëgg mooy fondement wu mooy liñ la jox ci ay alal ak ci moomeelu askan nga sàmm ko beneen bi ci des mooy pouvoir bi nga xam si ñoom pour mën a àtte seen diggante mu tegu ci maanaam bañ a tegu ci kaw yaa ma neex bañ a tegu ci kaw gerte bañ a tegu ci kaw lenn loo xam ne injustice bi ñu moo tax suñu yonent alayhi salaatu salaam yàlla ne ko booy àtte seen diggante wa idaa hakamta fahkum baynahum bil qist la ko yàlla wax boo dee àtte na nga àtte ci seen diggante ci kaw loo xam ne maandu la bil qist yaa mu waxte ne yaa ayyuhaa llaziina aamanuu kuunuu qawwaamiina lillaahi shuhadaa bil qist wa laa yajrimannakum shana'aanu qawmin 'alaa allaa ta'diluu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa mooy ne wax ñu ne na ngeen di nekk ñoo xam ne na ngeen di taxaw ci amal dëgg ak maanute ci lépp lu ngeen di àtte wala ngeen koy seet nit ki bu fekkente ni sax dafa nekk ak noon noon ci yow ak noonee nekk sa diggante ak moom bu mu la teree maanu bu mu la teree dëgg ak maanu ndax loolu moom dana dëgg ragal yàlla lislaam loolu la gëm kon nguuru lislaam ci kaw maanute boobu lay jëm ndax ki koy jiite dafa gëm ne yàlla subhanahu wa taala mi ngi koy saytu ci xool mbiram di xam ci lépp lu muy lu muy dugg ak li muy def te gëm na ni li muy def nii bu ci naxee nit ñi tamit dina ci rendre compte ëllëg yàlla mais koo xamante ni règlement de compte boobu diggante ak yàlla gëmu ko gis-gisu yàlla boobu ci moom gëmu ko li muy xool rek mooy digganteem ak nit ñi kooku bu naxee nit ñi ba noppi day dem tëdd nelaw ndax day jàpp ne leneen amatu ci ginnaaw kon ñaari ñaari système yooyu mu ñu bokk système boo xam ne ki koy jëfe moom yàlla lay xool ci ne bu mënoon a nax nit ñi sax du leen ndax ndax mi ngi mi ngi xalaat ne bu ko defee yàlla mere ak ki nga xamante ni lu mu mën a am ci nit ñi ci nax leen da koy def parce que xoolu ci leneen seen tuur ci yàlla ci li yàlla wax ne fa kayfa tattaquuna in kafartum yawman yaj'alu wildaana shiiban yàlla dafa posé benn question ne kayfa tattaquuna ndax naka la nit ki mën a nekkee un pire nekk ku am droit pur nekk ku ku ku jub bu fekkente ni in kafartum yawman yaj'alu wildaana shiiban bokk na ci wàllu ci wàllu tafsir aaya bu fekkente nit ki dafa dafa weddi bis bi nga xam ne ci lay dekki taxaw ci kanamu boromam pour ñu réglé ko ay mbiram bu fekkee nit ki gëmul lool naka la mën a nekkee nit ku ragal yàlla nit ku jub ci kaw suuf mënul nekk ndax xalaat bis boobu ak fàttaliku bis boobu mooy tax nit ki di bàyyi xel ci jëfi tayam ndax xam na ni conséquence bu jëfi tayam yi moom moo koy tax ëllëg mais koo xam ne jàpp na ni bu bu deewee moom dafay nekk poussière wala mu réincarné wu ci beneen forme mais ay jugement dernier amul ak yu mel noonu mais kooku kay kooku kay boo ko joxee nguur ci njuuj njaaj ak luubal ak yooyu rek ci la koy sax taxa taxawal ndax amul leen lu muy xool moo tax kon ñaari système bi mënut a bokk la ndax lii ci kaw ragal yàlla la tegu ndax dañ leen fa gëm ne lii moomeelu yàlla cërub yàlla la bu ko yàlla jox mu yor kon dina ko sàmm bàyyi ci xel boromam subhanahu wa taala loolu moo tax kon ñaari système la yoo xam ne mënut bokk moo tax kon dafa doy waar bi nga xamante nax na nit ñi te wallaahi ñi nga xam ne ñoo togg loolu ñu bëri bàyyi ci xel maa ngi mën na ci révolution française bi 1789 bi nga xamante ni réussir nañ ba daaneel seen nguur bi seen seen royaume bi ci lañ nekk fexe ba indi régime yoo xam ni dafay écarter lépp loo xam ne diine la ci nit dëkk di doxe ak nit ñi di doxe ndax bañ diine am influence ci nit ñi seen nekk ni fexe ba dindi dindi diine ci ci influence bi li la koy wan mooy Vincent Payon bi mu waxee ci seen seen révolution bi par exemple livre bi mu bind di expliqué ci loolu daf ne gars yi bi ñu soog a def seen révolution bi erreur bi ñu defoon mooy yaakaaroon nañ bu ñëwoon ci wàllu nguur rek écarté ci église bi écarté ci diine doon na doy mais dem nañ ba xam ne ndaxte am na yeneen secteur yu négligé beneen bi ci des mooy éducation éducation xam nañ ne ndaxte buñ ko sàgganee ci la diine di jaaraate pour ñëwaat nangu boobu du seen noonu te bëgguñu ñu nanguwaat éducation ci moom daal di laïciser éducation bi def éducation nationale jël yar ak cuub doomu aadama mooy kenn mu war a nekk le citoyen jël ko yóbbu ko def ko ci li nga xam ne mooy école bi léegi nag digal waajur yi ne leen seen i doom école bi moo leen war a yar jël leen leen ngeen yóbbu leen ci école bi bu ngeen leen yóbbee ci école bi école bi dafa ay lay alors que système moo war a nekk lay mais peuple du nekk lay peuple am na droit ci dund lu ko neex am na droit ci gëm yàlla am na droit ci jaamu yàlla mais système bi nga wax ne moom mooy atte bu dee ni ñu waxee ñoom laïcité nga xamante ni mooy ne dafa nekk lu neutre ci diine yi jëlul benn diine jiital ko wala mu sukkandiku ci mais bàyyi na nit ñi ñu am liberté wu dund seen diine kon peuple kenn war koo def lay mais système bi moom moo war a yëngu ci lay mais loolu ay nax la mooy comme nax yi ma doon wax sànq seen objectif dëgg-dëgg mooy laïciser ndax mbir mi du laïcité laïcisme la laïcité bi mooy système bi mais laïcisme bi mooy dogmu bi dogmu la ay dogmu la yoo xamante ne ñoom dañ koo yor mu nekk ay ngëm-ngëm yu ñu gëm ñu bëgg a fexe ci xool ñu def ba def ko ci nit ñi. te loolu yëpp ñu ko toggee ci ay loge su ma waxee loge nag la ci topp war ngeen koo xam ci loge yi lañ ko toggee ba mu nekk ngëm-ngëm bu leen ñor ñu xool ci yoon ñuy jaaree pour def ko ci kooku wax ji wax ji yëpp loolu boo xamee loge ba ko loge yi ñu nekk ci ginnaaw di nga xam dëgg-dëgg kon ne mënut a nekk njëriñu doomu aadama li ñuy wax ci ay liberté yi mënoon ñu sànq yëpp ñoom ñoo nekk ci ginnaaw liberté yi may tudd yëpp ci li ñu tuddee droit de l'homme ñoom ñoo ko xalaat ñoo ko mooñ ñoo ko tënk ñoom sax dañ koy bàkkoo di wax ne ñoom la droit yi ñuy wax yëpp ci ay droit à l'avortement ñi ngi wax léegi ci euthanasie yi ñuy wax yooyu yëpp ñoom ñoo koy xeex benn bu ci nekk ci yooyu ñoo koy xeex jigéen ñi seen émancipation bi ñu wax ni ñoom la lépp ñoom ñoo nekk ci ginnaaw libéré moom ñu libéré nañu ci contrainte yooyu ak ci takk-takk yooyu nga xamante ni yenn yi ci ñoom ay féeru la wala ay tabu la ñu ko tuddee ci société yi wallahi nekk njëriñu doomu aadama jaxase suñu nekkin la ci jur dindi suñuy valeur déséquilibré suñu société yi ñoom tëddee woon pour gën a mën ñoo jëpp gën a mën ñoo jaaree fi la neex loolu mooy seen jubluwaay ci jur bu jur bi comprendre système yooyu ba xam ne ci nekk ba démystifié ko ndax ñu bëri suñu suñu problème mooy complexe bi fi ñu tubaab yi àgg ak gëm bi ñu leen gëm dafa weesu ñun gëm gi ñu gëm yàlla ak gëm gi ñu gëm suñu diine ba tax na ñu bëri suñu loolu moo ñu sonal ñu bëri suñu loolu moo ñu sonal parce que dañ ñoo yar jàngal ñu ba sol ba yëf yi sol suñu sol boo xam ne léeg-léeg remettre ko en question day nekk lu jafe ci ñun mais jullit bi am culture l'islam l'islam yar ko am lu mu def ci moom ba yàlla def bëtu xolam di jéem pour mu comprendre li may wax nii dina yomb ci moom incha allah mais koo xam ne bëtu xolam boobu ci jéegoowul kooku mooy am problème ci dégg genre discours bu mel ba léegi mënul gëm ne tubaab yi ci ay nax la téye àdduna ci ay nax rek lañ téye àdduna def nañ fi démb yàggul dara ay caay-caay façon xeetu caay-caay ak ñoom def bu nekk def nañ ko fi ba léegi ci lañ def dañuy changé forme yi mais ba léegi ci loolu lañ ci nax doomu aadama léegi bu fekkente ne jullit bi xam na loolu ñu koy jiite loolu dafa war a xam ne kon nguur la boo xam ne ñàkk pexe moo ko teg ci kawam bu ci amoon pexe li yàlla bëgg moom lañ jiite afa xukmal jaahiliyati yabghuun wa man ahsanu min allahi xukman li qawmin yu'minuun wa man ahsanu min allahi xukman laa ya'lamuun yàlla mooy ahkamu xaakimin wala la yàlla nee na ndax dañu leen di sàkku ci jeneen àtte boo xam ne àtte ceddo la bu fassiru na yi dañuy wax ne borom tafsir yi bépp àtte boo xam ne tegul ci alquran ak sunna xukmu jaahili la bépp àtte bu ñu tegul ci alquran ak sunna xukmu jaahili la ceddo moo fa nekk ceddo du rek li fi nekkoon laata lislaam bi ñëw de mais système yi nga xam ne yépp dañuy jéem a lalu ci kaw suuf dina dañuy gouverner nit ñi te tënkuwuñ ci njubul yàlla ak ceddo la dafa am ceddo bu yàgg ak ceddo bu bees mais lépp ak ceddo la démocratie ceddo la moom àtte ceddo yi fi newoon bu ko doon àtte ñooy benn dañ koo moderniser beesal ko rafetal ko mais du yëfi yàlla comme du yëfi yàlla nag yow jullit bi ceddo nga ko war a jàppe mais comme na moo ceddo dafa ñaaw baatu démocratie rek nañ ko ba pare wala bu ñu bëgg nga leen di méngale mais ak ceddo ndax doxalin la boo xam ne tegul ci kaw gëm yàlla li mu teg moom ci kaw weddi yàlla mooy yàlla amul sañ-sañu àtte nit ñi ñii wax naan yàlla moo war a àtte dañuy taafantaloo loolu nga ko jëfandikoo rek mais bu ñu ñëwee dañuy noot nit ñi dañuy bundu xatal nit ñi seen seen loi yooyu ñuy wax ci naan lii ko fi def dañ lay def lii lii ko fi def dañ lay def loolu ñuy teg ci kaw nit ñi tëral maanaam kon li ñu bëgg a wax mooy li yàlla àtte ci jaam yi doxal ko ci seen kaw loolu mbugal la mais li nit ñi bëggal seen bopp ci liberté ak di ko def loolu mooy li neex loolu mooy stratégie wu kan iblis iblis naxe bi muy nax doomu aadama yépp mooy yàlla dalaa sonal man dama laa noppal ndax yàlla yi lay sant yépp coono la te man boo ñëwee loo bëgg ma def loolu jeex na dàq léegi kon ñoom ci kanam iblis lañ nekk iblis mooy wax doomu aadama bi ne ko defal lu la nekk te loolu mën nga wax ne mooy slogan wu mooy slogan wu satanisme tey ci àdduna bi mooy be yourself defal lu neex listen to your heart déglul sa xol defal lu la neex dañ koy def sax ay lan ay slogan yenn marque yi sax dañ koy def di ko publicité mooy déglul sa xol lu la sa xol jot def ko nekkal sa bopp just do it fay la loo bëgg a def def ko mooy li ngay xalaat def ko bu la kenn téye bu la am ay contrainte léegi yooyu yëpp satanisme la parce que seytaane moo nekk ci ginnaaw mooy li nga bëgg a def def ko ay contrainte ak ay limite ak yooyu yële diine yi di tënk dindil yooyu tekkil nga sànni mais loolu kenn nekkul ci ginnaaw ko dul gis léegi bu jullit bi xamee loolu ba comprendre nekk ci suuf régime boo xam ne dem nañ abbaale ko ci tubaab ak seen xalaat yeeg seen yooyu yëpp indil ko ko di ko ko tàggal bu nekk bëccëg moom danaan laa hawla wala quwwata illa billah allahumma hada munkarun laa tarda bi day xam ne lii bu ci amoon pexe bu am mais amul ci pexe ndax pàcc-pàccee nañu néewal nañu doole ndax ba ñuy am au moins xilaafa tubaab yi yemuñu woon song nañu ba tàyyi suñu xilaafa bi fi nekkee ñu duma leen ba dugg biir Europe ba dàqe leen ba dugg nangu Italie jël lu bëri ci France xilaafa Ousmane yéen turki yoroon def nañu nangu dëkk bi ngeen tuddee Istanbul Constantinople ñu nangu ko ci loxo romain yi xeex ceeb ñoom xeex bi metti tax moo nekkoon seen capital diine mi ngi mel ne nga demoon tey Màkka ni mel ci jullit yi daanaka noonu la meloon ci tubaab bi jullit yi xeex ak ñoom assiégé ko ay ati at ba duma leen nangu mais li ma doon wax te mu indi ñu ci loolu mooy ñu daal ñu dagg pàcc pàcc yi organiser ñu de sorte que dootuñu mën a te amati xilaafa bu ñu indi fii ñu amaat kattan ba di leen tëj ñu teg loolu lañ def maanaam da nga doon xeex ay nit ñu mbooloo di sonal la ngay kër ci kër ci di kër ci kër ci di kër ci kër ci di kër ci kër ci ba tas seen mbooloo mi jàpp leen kenn par kenn duma leen fexe nag balal jël leen def seen diggante ay barrières yoo xam ne dootuñu mën a tey nekk di mbooloo pour bu beneen yoonatee ni ñu leen dawee woon noonu dootu ne mën a seen dawee dootu leen dawatee noonu noonu la ñu def mooy jàpp ñu lakkate ñu pàcc pàccee ñu léegi beneen bi ci des mooy jël lislaam bi sànni ko fële indi ñu yeneen yeneen système ak yeneen régime yoo xam ne moom la ñu imposé ñu yoo xam ne ñun bu ñu ko jëlee di ko appliqué suñu réew daanaka ñun seen i surga la ñuy doon rek seen i suq la ñuy nekk ndax li ñu mayoon kattan mayoon ñu doole ba ñu àggoon ci doon leen duma di dem Europe di nangu seen i dëkk di nangu Espagne di ko tijji di ko def leeru islam Espagne bi di nangu lenn ci Portugal loolu nangu ay Italie nangu ay lenn ci France li ñu mayoon kattan boobu mooy ba ñu jëlee suñu diine def ko muy li nga xamante ni mooy fondement ak base suñu nguur loolu benn lañu ndax bu ñu ko defee rek ci sukkandiku ci li nga xam ne mooy diine dootuñu am contrainte espace suuf ndax boobaa communauté la ñuy doon boo xam ne dañuy nekk lu universel foo ab jullit nekk day jàpp ne ci kii bi la bokk xilaatal bi la bokk te loolu daf ñu may doole imagine nag jullit ci àdduna bi yëpp bu ñu nangoon ay bokk ànd nekk ci benn nguur kan moo mën a taxaw seen kanam ndax nguur la goo xam ne ci kaw ngëm-ngëm la tegu nguur bu tegu ci ngëm-ngëm ak pas-pas yamoo tax nguuru àdduna yi moo koy ëpp doole pour bañ loolu del si wat ñu daggatañu benn ñaareel bi mooy nguur bu tegu ci diine ci kaw diine bu mu amati dañ leen jox nguur yoo xamante ne ay nguur yi laïcité yoo xam ne teguwul ci diine ci seen i xalaat yi bopp la tegu daal di copier rek ñu yor ñoo jox ñu loolu kay bu ñu bu ko defee suicide la ñu ñoo rey suñu bopp moo tax tey bu ñu néewee doole ñu en tant que jullit yi bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu nekk di xalaat wala ñu posé wu question suñu néew doole bi fan la jógee bokk na ci yi gën a wu ko gën a waral loolu leneen li si gën a nekk danger mooy ci àdduna ji nga gis ay nit yu jóg di laajal ci lislaam lu mel ne luy wane na nguur yooyu ak la ko laal ak lépp ak lislaam ñoo yem dañ leen war a jàppee pour nguuri lislaam jël cër bi lislaam jox nguuram ñu jël ko jox ko xoolal wax ju mel noonu di dem di jël ay aaya alquran ay xadiis rasulillahi alayhi salaatu wasalaam di wax ne moom li ko tax a jóg mooy nguur yooyu nga xamante ni ci ci loolu lañ ko tax loolu mooy histoire mi ngeen dégg wax ko léegi mooy histoire jubluwaay bu bon bu ñaaw boobu nekk ci ginnaaw yow boo demee ba mën a toog condamné mais noppi nga ni mënoon koo condamné sax mu nekk fi di condamné ouvertement parce que su ma waxee yaakaar ne soo waxee xuruj la soo waxee ixwaan yi nga soo waxee mën na indi fitna mais bu boobaa jàppal nga toog nga noppi mais nag dem ba àgg ci ngay wax ne da ngay jël bay'a shar'iyya bi nga xam ne lislaam da koo jox xalifaam jox ko koo xamante ni dafa ñëw wutu yonent yàlla bi alayhi salaatu salaam ci xeetam nga xamante ne bi dañ koo insha li islaahi amri diini wa dunya li xifdi amri diini wa dunya nga xam ni loolu poste la boo xam ne dañ koo def ngir sàmmal xeet bi diineem ak addunaam te diine ji moo jiitu ku mel noonu la lislaam jël sañ teg ko ci kaw base bi alquran ak sunna ñu war a jaayante ak moom ci kaw ci kaw ci kaw loolu ci kaw condition boobu nga jël xàq boobu jox ko ki nga xamante ne bi ci nguur boobu nguur gi nguur gi nga xamante ne bi tubaab yi lañ ko jëlee te lii tax tubaab yi teg ko fi lii la te lii mooy mbiram lii mooy histoire am dañ lañ ko jël ko xeetu déggin bu mel noonu bu doy war ba pare jël ko di ko askanale borom xam-xam di wax ne loolu la borom xam yi wax loolu la ñu war a def bu ko deful loolu salaf yi loolu sunni yi loolu nangam sax nga commencé na ci mel ne ku ciy def du suyaare ñu dégg ci menacé ci boobu te mënuñ la indi preuve buy wane ne borom xam li wax la chaque fois explication lañ lay defal yoo xam ne ay coli ay copie copie collé la ñuy def jël benn wax borom xam boo xam ne nii lañ ci war a déggee li ñu tuddee laaj bu ma la des lu ma la maanaam boo jël waxam li mu wax explicitement li mu wax nii mais da ngay jël lu koy war a déggee ci waxam ci genre yooyu la ñu dugg ak yow texte bi lii la wax kon lii lañ ci war a déggee chaque fois la ñu subhanallah loolu bokk ci ay doxalin ak ay taxawaay yoo xam ne doy waar yoo xam ne yenn ci shabaab bi dugg nañ ci yaakaar ne bu ñuy wax samu ak taa dafay dem baal ci foofu samu ak taa ahlu sunna lañ koy wax principe la ci principe ahlu sunna ñu jàng ko jàng ko ci téere borom xam ne jàng ko ci relation bu war a am diggante ki jiite ak ki ñu jiite ci lislaam bu nee wax ci lislaam la ñuy wax mais bu dee koo xamante ni jiitewul ci lislaam samoom ak taam ngànt la xaala daruriya la jullit bi bu koy def da koo def ci kaw lot bu mu lot ci mën a soppi système bi ak régime bi ci kaw loolu la ko defee kon loolu boobaa ngànt la ca am mais nekkul ne da ca ànd ak xolam ànd ca ne lii lu jaadu la lii lu baax ndax jullit du iqraar munkar jullit du ànd ci loo xamante ni ci xolam accepté loo xam ne munkar la te soppi atteb yàlla jël atteb ceddo teg ko ci place am loolu ko gën a nekk munkar naka nga bëgg a jël loolu jullit léegi daf ne ko yow loolu da nga war a accepté ci sa xol ne nii lu normal loolu mënul nekk beneen bi ci des mooy boo boo reconnaître ki nga xam ne mooy imam bi wax ne jox nga ko sa sama ak sa taa ak sa baya waaye régime bi moom nee na topp nañ ko nga xoolal ceeb la loolu kay loolu loolu loolu looy wax dara mooy li ñu naan daal bu ma lekk matuwaay bi dinaa ci ñeex mi rek parce que benn kii kii mënut a nekk loolu xam nga dafa lu tuddee was mu'tabar dafa lu tuddee was mu'tabar loolu ndaw am mi nag waaye taalil mooy taalil bi sifa ndax sifa bi mu naaw léegi loolu mooy lu mel ne yàlla subhanahu wa ne wassaariqu wassaariqatu faqta'u aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaalan min Allah yàlla bu waxee rek sàcckat bu góor sàcckat bu jigéen dagg leen seen loxo waxul lan lañ def bañ dagg seen loxo waxul lan lañ def bañ dagg seen loxo daf ne sàcckat bu góor ak sàcckat bu jigéen dagg leen seen loxo mais waxul lan lañ def léegi lan lañ xamee ci kaw lañ ci kaw lañ dagg seen loxo naka lañ ko xamee ñu ngi ko xamee ci kaw melokaan bi lay jox mooy sifa bi mooy melokaan bi di as-sariqa loolu lañ jël ko muy illatul xukm dañuy xam ne kon ci kaw melokaan boobu la leen yàlla la yàlla santaane def leen loolu kon ci melokaan boobu lañ sukkandiku pour xam jëf yi nga xam ne moom lañ def ba tax ñu mérité àtte mais yàlla tuddul jëf boo xoolee as-saariqu was-saariqatu idaa saraqaa loolu booba xasu lañ koy tuddee ci arab alxuraan moo koy doon xasu mooy wax wax joo xam ne c'est inutile c'est futile jarul nga ko xew parce que li nga di ko wax tax nañu comprendre boo ko waxee répétition lay doon alxuraan moo koy doon kon bu waxee rek ne sàcckat bu góor sàcckat bu jigéen dagg leen seen loxo dañu xam ne dagg loxo bi sàcc bi moo ko waral ci melokaan bi leen dalal rek lañ ko xamee naka noonu tamit bu ñu waxee da ngay jaayante njiit da ngay jaayante buur ci kaw lan ngay jaayante moom ci kaw nguur gi ñu am kon boo reconnaître nguur gi mooy kon koy doon nekkatul buur sax wala la boo reconnaître nguur gi ndax ceeb doon ndax pas buur la bu boobaa kon moom dootul nekkatul buur kon da ngay reconnaître nguur gi. ba pare soog a reconnaître buur bi bu reconnaître nguur gi amul reconnaissance buur bi du mën a am loolu la ñuy wax asbit al arsh thumma nqush wala thumma naqsh loolu moom mooy li ci am moo tax xeetu falsafa bu mel noonu wérul bu fekkee jullit bi dem na ba gëm ne démocratie yu moderne yii attewu yàlla la ci nit ñi boo xam ne daf ko war a jox mu waalaatam jox ko bay am bi nga xam ne mooy bay a charia ba tax ka koy atte bu jàppee ko imam te bu tuddee amirul muminin mi ngi ci erreur bu rëy rëy ñàkk dégg lislaam mooy suul loolu ndax dem bay jaawale lislaam ak ceddo loolu moom ku ko def mooy yaa ngi ci danger bu rëy te malheureusement indi def ay coow ci ay jamono ay jeunes jël ko fi ba léegi ñenn si ñoom ñu ngi ci persister di ko wax di ci propagande di dugg ci ay jeune bu gis xam ne sa njàng soriwul yaa ngi soog a commencé di góorgóorlu sunna wala sunna soo xam ne xëy na doo fréquenté trop mouvement bi doo déglu yenn ustaas yi ñu gis la ci yow première stratégie moytul diw bul ko déglu bu salaf yi borom xam-xam diw nee na moom nii la kii nee na nii la fexe ba dindi sa système immunitaire bu ñu dindee système immunitaire bi nag ba pare nga soo commencé la ñëw yi di installé yi ñuy njëkk installé wala li ñuy njëkk installé as-sam'u wa taa ci imam bi ay na imam man huwa imaamuna subhanallah amirul muminin imaamul muslimin xalifatu rasulillah nga ne ci tubaab yi sañ ci teg ko fi moom koy jox titre boobu nga koy jox xamuloo li fi rasulullah bàyyi alayhi salaatu wasalaam moo tax kon foofu bàyyi dafay confusion lenn lu nekk dañ ko jox àqam lenn lu nekk dañ ko jox cëram kenn diglewu fi soulèvement kenn diglewu fi li fi ñenn doon wax tamit naan dañuy def dañuy jihaad parce que ci ci baladu kufur lañ nekk yenn shabab yi jëfati woon nañ fi dem ci côté opposé bi mooy chaque fois rek lay am bu ñuy xëccee jëm ñi ñuy xëcc jëm ñi booy jàpp ci naan ku déet bul dem kële kële di di di maamu di jëm fay da ngay wax bay bëgg a dee ñeneen tamit jógati fi ñëw ne bala mu kufur lañ def ne xokkaam yeeg wax ko mun a yëpp ay kuffaar lañ ñëpp ay kuffaar lañ ku fi toog da ngaa war a jihaad boo ko mun a da nga war a hijra gàddaay wala tàng na loolu waxtu mel noonu tàng na loolu di ko wax te bàyyi loo xam ne yow li ngay wax nii borom xam-xam yi ñuy dellu si ñoom dañ ko dee borom xam solo bu demaat kenn jiitu la ci wax ñu mel nii te nit ragal la di wax joo xam ni boo ci xoolee doo ci gis ku la doo ci am salaf léegi nag jënd ci borom xam yi dañu mën a approché yenn wax yi ci yenn masala masalan ci yenn masaa yi chokku ne Shawkaani masalan maa ngi fàttaliku leen ci yenn ci ay téere boo leen di liiral ci yenn ci yenn masaa yi fiq yi masalan da ngay gis ku jàngat benn wax boo xam ne borom xam dañ cee wuute ba ñëw ci masala bi àgg ci benn wax boo xam ne wax bu doon wax bu rafet la boo xam ne daal ñetti wax wala ñetti wax yi mu jàngat ci masala bi wax ci daal ni ñu ko jàppee moo ci gën a koyar mais lan moo tax du ko ñemee appuyé daf naan gisuma kenn ku ko wax ci lu jëm gisuma kenn bu ko wax ci lu jëm moo tax dama ci def nag ndax mën nga ko ko rafetlu ci kaw waaye day jafe pour nga wax ko te kenn jiitu la ci moo tax ñu naan ida kaana fi lmasalati qawlaan fala yajuuzu ihdaahumaa xawl qawlin taalika li anna daalika yaqtadi nisbata al ummati ila dalaal dañuy wax ne bu fekkee wax masala borom bi lañ cee wute ñaari wax boo ñëwee bul créé benn troisième wax yoo xam ni delluwul ci ñaari wax yooyu daf leen a génn ndax loolu boo ko defee day war a ne kon ñaari wax yëpp réer la te kon xeet bi am na jamono joo xam ne ñoom ñëpp ci réer lañ nekkoon te xeet bi yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam bi mu nekk ñoom ñëpp ci réer asama allahu ummati an tajtami ala dalala la waxoon yàlla dafa dafa dafa aar sama xeet ba du dëppoo ci réer du dëppoo ci réer mooy bu dëppee ci benn mbir ñoom ñëpp ijmaa lañ ko tuddee dëgg lay doon bu ñu wutee ci ñaari wax dëgg du génn ci ñaari wax yooyu dëgg du génn ci ñaari wax yooyu di nekk ci beneen wax troisième wax dara kon yu mel noonu moo tax bunt yu mel noonu des fois bu ko nit ki maîtriser wu muy bunt mooy ci wàllu ay jiit ak wàllu jihaad ak façon jihaad yi am ak condition wu jihaad yi ak ci yan condition la loolu war a mën a amee ba ci aju lépp mën na koo yóbbu ci yenn frustration yi muy am tax mu commencé di jug di wax yenn wax yi loolu ay ndaw jëlee woon nañu ay jamono ci ay réew te dëkk bi nga xam ne fa la ñu faral di importé di importé genre salade yooyu bu nekk xam na ko suñuy dendal la te ña ko fa yóbbu tamit li ci ëpp du waa dëkk boobu ak ña fa doon jàng ci daara yooyu mais ña jóge ay Algérie Algérie la xalaat bu bëri ci loolu jógee dugg foofu fa la ko yenn ndaw demee di jël di ko fi indi nekk ci loolu ba ñenn dem nañ ba seen i bakkan des na ci yàlla yàlla jéggal leen dañ gëm ne ay jikko ay yéene yu rafet lañ amoon xëy na njuumte ak léeg-léeg tàngooru ndaw ba nekk ci nit moo tax dañu doon ñaan yàlla yàlla jéggal leen yàlla yërëm leen ndax suñu mbokk lañ te loolu la Ali ibn Abi Talib doon wax di ko xawaari yi di xeex ak moom jàpp ne moom yéefar la di ko rey moom daf doon wax naan ixwaanuna bagaw alayna min al-kufri qad faru moom daf doon wax naan ñii suñu mbokk lañ yoo xam ne dañoo jéggi dayoo suñu diggante ak ñoom waaye ci kéefar lañ jóge ci kéefar lañ jóge kon du ma leen jàppee ay yéefar loolu la doon wax mu ne moom duñu luñ ay yéefar ñu ne ko am naa fi ko la mu ne innal munaafiqiina laa yadkuruuna Allaha illaa qaliilaa ndax ay naafeq rek mu ne naafeq yi ñu tudd yàlla duñ jaamu yàlla duñ ñëw kon du ma leen jàkk ay naafeq du ma leen jàkk ay naafeq loolu mooy dal gi nekk naka jekk ci ahlu sunnati wal jamaa ci seen diggante sax ak ñi nga xam dañu wute ak ñoom ba tax na kon bokk na ci yi nga xam ne nit ki war na koo xam mooy lenn lu nekk nga jox ko cër lenn lu nekk nga attee ko li mu doon te bañ a def ay confusion mënuñu def ay confusion jël réew moo xam ne du réewul islam régime boo xam ne du régime islamique te même sax instance yi nekk ci àdduna bi xam nañ régime ak état yi nekk ci àdduna bi yoo xam ne état islamique la yoo xamante ni connotation bi moom connotation islamique la islam ci lay référé ci lay ci lay sukkandiku yow nga ñëw yow toog rek mu neex la rek ci say wax ak ci loo xam ne yaa ko xalaat sa bopp nga ne yow da nga koy jàppee état islamique da nga koy jàppee régime boo xam ne régime islamique la ka fa nekk nga tuddee ko amirul muminin loolu noonu nekkul lu lu lu wér beneen bi ci des mooy bu fekkee nit ki xam na dëgg-dëgg réalité régime bi ba xam ne loolu moo ca nekk mu nekk jullit li mu mën mooy ci côté ñëpp individuel ak loo xamante ni ci wàllu mbooloo bu dee ci individuel mooy góorgóorlu ci sa diine sa kéemtalaay kàttan ci jàng jàng ko xam ko jëfe ko am ci loo xam ne yow la yow la concerné nga góorgóorlu ci loolu ci sa niveau am ci loo xam ne boo jàppalantewul ak say mbokk jën yi nga xam ne islam yor na leen te régime bi fi nekk ne moom yoonam nekku ci parewul pour def ko mu doon l'islam la régime bi la koy def ndax daa am yoo xamante ne bi imam moom moo koy defal nit ñi imam mus jullit moo koy defal nit ñi moo koy taxawee di ko def moom moo ko war a def moo ko war a taxawee ba ci sax bokk na ci am na bi maam am na fi am na dul gar di déggal baax jarlu woon ci réew mi mooy ut ay nit fan leen jox leen jox leen ndombay tànk ñu taxaw ci loolu di ko def moom mooy defaral jullit ñi ay jàpp ku ñuy jullee moom mooy taxawul ci nit ñi ci jullit ñi ku ñu jàng seen diine ku fi ñëw di jalgati di wax yeneen ci l'islam moo leen caw moo koy jël ndax dañ ko ne ko yow sa responsable yaa war a sàmm l'islam mais bu dee régime laïque bi nga xam ne moom yoon nekkul ci loolu bu waa jullit ñi ñooy jéem a fexe pour ay groupe de pression yoo xam ne dañ am doole pour mën di góorgóorlu ci sàmm seen diine lañ ca mën a dab dabal ñu sàmm lañ ca mën a dab dabal ndax comme mënuñoo àtte mënuñoo doxal ne li ma dox ci réew mi selon li ko seen diine waxee li ñu mën kon mooy ñoom góorgóorlu ba lañ mën a dab dabal ñu dab dabal ci ay jàkka bu laaj autorisation nga leen naxante ñëpp ñëwee ñëpp yi bañ jox la autorisation nga ñëw dëppoo li ñu wax tabax ci école yi doom jur ñi di jàngee ci yar bi nga xam ne bëgg nga mu nekk ñoom ci lislaam loolu ay furudu kifaaya lañ ko bindee yoo xamante ni jullit ñi bu boobaa ndax dañuy wax ne innal maysura la yasqutu bil ma'sur mooy ne la fekk nga ñàkk a mën a taxawal atte yàlla loolu lottu nga ci waaye lottu boobu du tax li nga mën dara di koy bàyyi boo lottee ci lii ndax moo gën a diis li nga mën da nga ciy taxaw waaye doonte lott naa ci li li gën a diis nag damay daal di yenneekoo loolu lépp sànni ko ci suuf loolu bu boobaa dañ lay dañ lay dañ lay daan dañ lay condamné ndax naa mënuloo islamiser dëkk bi ak système bi fi nekk mais mën nga lan mën nga góorgóorlu ci li nga mën di jéem a góorgóorlu ci yar doomu jullit yi def si ñoom l'islam def si ñoom culture culture islam nga góorgóorlu ci loolu mën nga fexe amal ay jàkk di woote noonu nit ñi di ñëw di julli si bu boobaa ñun ñëpp day wax suñu góorgóorlu ci lu mel noonu kon lépp loo xam ne ay taxawaay la yoo xam ne l'islam dafa sant jullit yi ñu def ko seen nguur moo leen ko waroon defal nguur gu fi nekk nee na yoonu nekk ci ndax moom nguuru islam bu boobaa jullit ñi lay wàcc ñoom ñu nekk ay mbooloo nekk ay kuréel góorgóorlu ci loolu seen kéem talaay kattan ba fañ mën a yem ba fañ mën a yem loolu bu boobaa loolu moo may nekk seen warugar beneen ci des mooy jullit bi nga xamante ne bi moom moo nekk suuf nguur gu mel noonu mu xam li ci nekk ci danger danger bi mooy lan mooy ne tinki na nit ñi ci àtte yàlla yi ci yàlla xaramaloon na sàngara moom nee na dagan na bu nit ki amee autorisation mën na ñëw ci jibaaram ci koñ bi di ko di ko fi jaay borom supermarché bi ñu ngi koy jaay fii ci bopp koñ bi doomu jël jaay génn ci kër bi ñu dem di ko jënd di ko naan bu doon lislaam la du am mais kii def ne moom àttewul lislaam ci constitution loolu légal la nit ki ko naan constitution bi tegul ci kawam benn daal ci li lay wan rek ne la kon système yi bokkul wala bokk na bokkul ndax système boo xam ne dafay daganal lu yàlla xaraama bu ta nekk système islamique loolu mënu nekk c'est impossible léegi loolu bu fekkee ne jullit bi xam na ko kon moom lan la mën a def mën a tuddi sanctionné kon ndax sanction nekkul ci loxo bu ko nit ki defee li nga mën mooy jëfandikoo nasiha mooy laaye bi mooy comme dañuy def nii di waaraate di wax di jàngale di sensibiliser bu ko defee ñu góorgóorlu ci contrecarrer liberté yooyu ñu jox nit ñi te mu mën leen a yóbbu ci ay tentation mën leen a yóbbu ci ñu am dëgër fit ak di ñeme yi nga xam ne yàlla tere woon na leen ko ñu koy def ndax gis nañ ne bu ko defee yoon bi daal ci seen kaw kon li leen ko mën a teree def mooy diine ji nekk ci ñoom yar bi nekk ci ñoom ah kon ñu góorgóorlu ci loolu comme ñun loolu lañ mën ñu góorgóorlu ci loolu naka noonu ci wàllu col ci wàllu leneen ci wàllu caaxaan ci wàllu leneen ci wàllu leneen yooyu yëpp nga xam ne ci lu mel ne njaaroo ak la cay jógee ci yëpp moom amul sanction yoo xam ne da ko ci teg ndax dafa jàpp ne bu consentement amee ñaari mag ànd def ko moom yoonam newul ci loolu jàpp na loolu li def ko dara dara nekk yow bi nga xamante ne bi nag yow yaay góorgóorlu ci kàddu bi islam te nguur newul sa loxo doole newul sa loxo booba xadiisu man ra amin ku mun karan daf lay jëfandikoo muy sàmmante bu tuddee mara mara maratibu ak taxiyir mooy mënatoo jëfandikoo doole ak nguur li nga mën a jëfandikoo mooy wax teg ko ci xam-xam teg ko ci yar teg ko ci xikma ak yaram nit ñi bëgg leen lu baax sa kéemtalaay kàttan njub nag ci loxo yàlla li ci loxo yàlla la nekk innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha afa anta tukrimu nas hatta yakunu mu'minin léegi bu fekkee loolu leer na la nga def kon ba fi sa mën-mën jàpp ndax laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha boo demee ba loolu nga am ci problème ci wax ci mënul nekk nga bañ ko ci sa xol ne allahuma ada munkaran munkaran laa arda bi yow yàlla lii ne ñaaw jëf la boo xamante ni gërëma ko waaye dama cee mënul dara bu ko defee am gànt sa diggante ak sa borom ba noppi di ñaan ak di góorgóorlu def suñu kéemtalaay kàttan ci taxaw ci loolu mooy ci daawa ila allah amru bil maaruf nahi anil munkar woote jëmale ci yàlla digle lu baax tere lu bon loolu jur ñi buñ ko sàggee mukk mukk mukk ndax daanaka loolu moo leen des bis bu ñu ñàkkee loolu mooy jeex suñuy société moom dinañ ko occidentaliser dinañ ko laïciser mooy laïcisation de la société moral mosaan dinañ laïciser suñu société li fi sàmm kas ñëw ay valeur ak l'islam bi léegi daanaka ci loolu la tënk ndax digle lu baax tere lu bon na xëy na tamit day dugg na ci duggaat ba léegi tamit yar kii bi yar bi ak jàngale bi mooy daara yi nga xam ne ñu koy taxawal te ñu koy xeex ci àdduna bi day jóge xeex bi ci kaw la jóge ndax ki ko dëgg dëgg dëgg yore UNESCO la di filiale ci ONU njàngaleen diine bi ci bopp na leen di déranger li ñu bëgg ñu jàngal ko nit ñi mooy xam-xam occident lañ bëgg ñu jàngal ko nit ñi ñu nekk ay occidentalisé mu nekk ay occidentaux mais ñu nekk ñoom dañ leen di occidentalisé loolu lañ bëgg mooy ñu tuddee ak tafriq loolu lañ jublu kon moo tax ñuy def na pour bañ pour bañ turit ñi jàngal njàngale boo xamante ni njàngaleem diine la jëm ci seen njaboot wala bu ñu koy def tamit nañ ko njara njara njara njara ba mu ndoxee lool ñu jox leen loolu na am mais jur ñi war nañu góorgóorlu ci loolu ci bàyyi xel ne seeni doom dañ leen góorgóorlu def ci ñoom yarul islam boobu jàngalul islam boobu pour ñu am culture diine ñoo nekk ci ñoom loolu ci yi ñu des yooyu ci la yooyu ci la bokk góorgóorlu ci diggal lu baax tere lu bon may doole lépp lu jëm ci tasaare kàddu yàlla ak li nga xamante ne mooy motu jëmale ci lislaam ba ci réseaux sociaux yi nga xamante ni jël ñoom dëkk nañ day envoyé bi dugg suñu biir kër yi jaxase ko ñu jëfandikoo waat ko loolu def ko mu nekk ñun suñu arme ñu jëfandikoo ko dimbali ko waat ko tamit ñu ñu ñu ko àggale suñu kàddu ndax léeg-léeg mbir ñëw da nga gis ko ci kaw yaakaar ne loraange la fekk ne sax mën na nekk lu lay jëriñ ndax daaw ahlu sunna tey bokk na ci lu koy may doole réseaux sociaux yi nga xam ne may na ahlu sunna ñu jàngale ci seen daaw ak seen kàddu ba nañu mën koo dégg ndax nit ñi dégguñ leen woon ay temps fii da nga daan wax kenn du la dégg jàkk ju mel nii sax imam Ousseynou mi mën na ma seede jàkka bi mel nii sax ñoo xam ne mën nañ faa toog def fa bayaan li ñu déglu amuñu ko woon secteur bi yëpp ñu ngi fi woon diggante Grand Dakar Pentele bi yëpp ñu ngi fi woon amuñu woon sax masjid boo xam ne mën nga faa toog ne fa qaala allahu qaala rasulullah li ñu déglu masjid ba yàlla def yenn ci ay jàkk yi nekkoon ci maire bi defoon ci diggante ñaari kal yi ci yooyu lañ commencé woon ndànk ndànk ndànk ndànk di fa dem ba yàlla def yi fi di law ba tey jii léegi xëy na mën nga lu war say vidéo ak say audio ci réseaux sociaux yi mu tasaaru ci àdduna bi fu nit nekk Sénégal dana déglu nit ñi nekk ci àdduna bi dina déglu ñenn bu ñu ko déggee dañ naan man xaw ma ne man xanaa discours bu mel ni am na Sénégal parce que amuloo foofu mënoon a waxee moo tax kon ñëw gi mu ñëw am na yàqte bu bëri bu ci nekk waaye tamit leneen a ngi ci li ci nekk mooy yow mi woote tamit di jàngale ci diine mën nga cee profité jëfandikoo ko ngir àggale sa kàddu foo xam ne àggu foo woon kon loolu tamit ci ñu dese na ko mooy góorgóorlu ci wàllu former suñu jeunes yi yar leen yarul islam defal def leen ci ñoom njàng xam-xam bu nekk ci ñoom ba nga xam ne fu ñu mën a nekk daanaka dañ fay nekk ay soldaaru lislaam ci noonu lañ mën a réformer suñu société defar ko ci noonu lañ mën a contrecarrer li nga xamante ne mooy processus bi mooy de de occidentalisation bi ni ñuy occidentaliser suñuy jeunesse def leen ay ay xaw ma tubaab laa ko te xaw ma tubaab yu ñu fexe ba yar bu bon boobu ñu def ci ñoom nga xamante ne lépp ci defar lu la neex la tegu defar lu la neex ndax tubaab yi noonu lañ yare seen bopp duñ yar xamuñu yar xale bi dañ koy bàyyi bu ko neex mu def lu mu bëgg a doon doon ko ndax ñoom réussir nañ loolu ci ñoom réussir nañ ci ñoom ci ne waajur nekkul ne dafa am ci doomam benn autorité boo xam ne day nekk naan ko defal lii bul def lii daf ko war a bàyyi mu dundee nu mu bëgg a dundee loolu réussir nañ ko ci ñoom ci ñun lañ ko lañ ko bëgg a indi tey mais ñun surtout ñun africains yi dañoo xaw a dëgër bopp ndax dafa am benn xëy na jàpp bu nekk suñu bu ñuy jàpp suñuy aada duñ ko faral di nangoo bàyyi moo tax fi mu nekk ñu ngi def def lu ñu mën di ñu jaaree fi ñu mën pour bëgg suñu yooyu noonu ñu jàpp mooy ci ñu bàyyi te bàyyi xale yi dafa leen nekk bàyyi xale yi ñu mel ni ñu bëgg a mel waajur yi bañ cee nekk ci am lenn lu ñuy wax wala ñu ko ci naqarlu wala ñu ko ci te buñ ko sañoon dinañ jëfandikoo yoon dañ ko sañoon buñ ko sañoon dinañ jëfandikoo yoon ba waajur bu fi nekkati te am lenn looy foqatal sa doom ci nii laa bëgg mu mel ko naa laa bëgg mu mel ko yoon dina jug dal sa kaw ndax ci Occident ñoo ko fee def waajur bu fa nekk di sonal sa doom ñu jug dal sa kaw soo moytuwul ñu nangu xale bi jël ko jox ko beneen famille ba noppi ne la lu mat 5 kilomètres ci kër ga mu nekk bul fa jaar maanaam bul xam ne sax fa mu nekk bul ko woo téléphone bul wax ak moom bu la rombee sax bul ko bul ko tàllal lool sa doom bi nga xam ne yaa ko jël noonu lañ koy nangoo ci sa loxo loolu jéggi na dayoo lool say dëkkandoo doo ko ñooy dégg xale bi ñooy ci kër gi léeg-léeg xamuñ sax muy ñooy ñu woo seen services sociaux yi nee na daal am na xale bu ñooy fii rek fan yëpp dama ko dégg muy ñooy ñu ñëw daan def seen investigation léeg-léeg dañu am seen i propre idée ba noppi soo gën a ñëw di def enquête mooy bu ñu fëggee koom-koom borom skim génn ñu ne nii gis benn borom boobu ñu ne ah ñu dañuy terroriser xale bi wala nga dañ koo bëgg gëmloo seen affaire diine yi léegi ñoom idée boobu la ñuy ñëwaale ci biir kër am nañ ay préjugé ba pare bu ñu gisee xale bu ci ruq bi naan bu lañ la doon dóor xale bu ndaw naan bu lañ la doon dóor ne la waaw sa papa day dóor sa yaay day dóor ne waaw waaw parce que moom xamul sax li muy wax léegi nag xale ci boppam moo mel noonu de fait mu gis nañ ni nga ñëw nekk gan yi ku bees nii di ko wax mu mel ne da koo jëmbali ci dara di ko laaj moom day xool léegi léegi li mu bëgg ko tontu waaye mu tontu la loolu bu ko defee nag ñu def loolu seen rapport daal di jël xale bi dem jël ko loolu ñii fi nekk di ñu jugé di ñu jiite tamit jàpp nañu lu normal la loolu mooy li waral dañ koo sañawul moo tax chaque fois ñoom li ñuy wax mooy àggaguñ ci àggaguñ ci àggaguñ ci muñal leen ñu àggaguñ ci mais li ngeen di def loolu lañ bëgg a def te bu li ngeen di sottee fàcce bi ñee toll ñoom itam foofu lañ cee toll bu boobaa ñu jàpp ne réussir nañ moo tax ay jamono bi ñuy affaire góor jigéen ñu laaj ki ki jënd réew mi ci wàllu góor jigéen ca seen dëkk yooyu mu ne non suñu réew àggaguñ ci mën a accepté loolu ñu bëri dañ yaakaaroon ne loolu li muy tekki mooy ñun suñu réew duñ ko def waaye loolu du tekki loolu rek suñu réew àggaguñ ci mooy ay dof lañ ba léegi nangoo bu ñu affaire ngóor jigéen kon liggéey bi des na mooy ñun ay dof lañ ba léegi accepté bu ñu ngóor jigéen ba léegi ndax ndofe gi nekk ci ñun moo tax kon liggéey bi des na war nañoo gën a travailler cuisine nañu pour ñu gën a ah jël xalaatuñu occident bi pour mën a accepté loolu jàpp ne normal la dara nekk ci dañ ko war a accepté dañ ko war a toléré loolu la wax ji di tekki ci gàttal moo tax kon bu fekkente ne jullit ñi ñu ngi ci suuf régime yi mel noonu nañu seen i bët li leen seen seen seen seen yoon jox ñu jël ko ñoom ñoo wax liberté d'expression am nga droit kon wax yow li nga xamante ne boo sa gis-gis boo àndul ci régime bi ànduloo ci système bi parce que xëy na nekk fi di critiquer ay ay nguur ak nekk fi di dugg ci ay politique ndax yooyu xëy na c'est sensible mais ci diggante diine ak beneen système bu jaamaarloo ak moom nga wax jëmale ci système boobu ci ñàkk gi mu ñàkk nekk lu baax ak ñàkk gi mu ñàkk dëppoog lislaam nga yee ci jullit ñi loolu bépp jëm sañ na ko bañ fay dugg ci xëy na di critiquer ma sàmba wala ma demba wala diw laa àndal diw laa faral wala président def na ni wala jaar na fi yooyu dafa sensible l'islam xëy na ni mu yaree ab jullit bëggul muy dugg ci yu mel noonu ndax ay fitna lay jur ak ay xiiroog ngaayu lay jur da lay wax dana booy defar di jéem a yëwalal fexe jëfandikoo yeneen jumtuwaay yu gën a mucc ay kër yu mel noonu ndax ay problème rek lay indi te frustration yi muy créé ci nit ñi après ni mu leen di ci leen leen di yóbbu mooy jug def ay soulèvement jug def ay mbir yoo xam ni doxalin yoo xam ni yàq lay gën a def ka defar ndax l'islam sant la ngay merloo nit ñi di leen di def ci ñoom ay frustration pour ñu jug fi sant la lool lim la sant mooy nga ñëw dalal nit ñi muñ loo leen jamono bañ leen doon sax bëggal di leen dóor di leen fitnaal l'islam di leen daan jëgal ñu muñ jamono bañ leen doon fitnaal ñu nekk minorité l'islam di leen doon sant ñu muñ sant leen woon di leen ñu ñu ñu frustré wu wala ñu jug def lii daf leen doon sant ñu muñ parce que ci kaw muñ ak dal boobu dañu mën a tegoo ci yoon bi nga xam ne moo leen di yóbbu bañ àgg ci seen objectif kon loolu force la du faiblesse ñu bëri yaakaar ni force mi ngi nekk ci benn discours incendiaire bi nga xamante ne mooy am ci nekk di critiquer ay régime di wax yenn wax yu rëy yi mais loolu dëgg-dëgg daanaka yàqu lay gën a def ka defar voilà day indi rek manque de lucidité tuuti ci lekk ñuy jàngatee situation bi ak ñun lan moo war a nekk suñu taxawaay ak leen ak lañu war a dund mais bu fekkee jàngat nañ li ñuy dund ci dal ak ci tey teg ko ci xam-xam teg ko ci dal yàlla mën nañ defal sutura ñu am gis-gis bu leer ci xam nan lañu war a def ak yan doxin lañu war a am ba mën a góorgóorlu sàmm suñu diine tasaare diine ji muy law ci réew mi ba yàqute bi incha allah ñu minimiser ko suñu kéemtalaay kàttan contrecarré ko l'islam ndax l'islam rek ko mën a contrecarré système bi état bi ci àdduna am leneen lu ko mën a contrecarré am na kenn ku ko doon wax benn gé géopolitologue wala géopoliticien di Pierre Dillard mais après seen côté xëy na yenn organisation yenn association catholique yi foofu en France dañ def ci mooy pression léegi changé na discours am mais ay temps boo ko doon déglu dafa doon wax ne la tey mondialisme bi nekk ci àdduna bi gisul beneen système bu mën a nekk ci kanamam mën koo def face bu dul islam ndax jullit ñi kese ñoo fi dese ay valeurs yoo xam ne ba léegi ñu koy sàmm ñeneen ñi ci des ñëpp détruire nañu yor ñu dara loolu moom ci bopp moo ko doon mais comme wax ji xëy na du neex njëriñ te commencé di leen fréquente ñu koy sant ay conférence léegi changé na discours mais loolu mooy réalité daal l'islam kese kese moo fi des l'islam moo fi nekk ci loo xamante ni nit ñi mën nañ cee jàpp jàngal leen diine yar leen yarul islam bu nekk ci ñoom ñu màngaay ak loolu loolu ci yi nga xamante ni tamit war nañ góorgóorlu ba sàmm ndax yooyu lañ ci dese yooyu tamit war nañ cee góorgóorlu suñu kéem talaay xam formé ay borom yi xam-xam yoo xam ne ëllëg dinañ mën a toog fii ma toog nii wala fu ko raw di di wax naan yàlla nee na yoon ci beneen nit ñi di leen jël ndax ñooñu tey ñun ñoom ñooy suñu ñi tuddee donneur d'alerte bu ñu wax naan société bu ñuy dox di dem mënut a ñàkk ay gardien ay gardien lañ leen tuddee gardien mi ngi mel ne ñu nekk ci lëndëm bi ni ñu tëdd di nelaw am ñu taxaw di xool bu ñu gisee ay till yu ñëw wala ay gardien yu ñëw ñu yenn ñi ñi nekk di nekk ay gëstukat ak ay nit xam-xam nekk ci peuple bi di wax ñooñu ay gardien lañ leen tuddee rôle boobu lañuy joué ci peuple mënu cee ñàkk ndax sinon bu ko defee nit ñi dañuy nelaw ndax bëri na yoo xamante ne nit ñi lekk duñ ci sensible duñ ci bàyyi xel bu ko defee nax leen ci dafay yomb ñu mel noonu ñooy gëstu yooyu luñ ca xam ñëw ci ak dal di ko wax nit ñi te bañ ko wax ci nit ñi ak benn fitna boo xam ne da leen di tiital tiit boo xam ne bu ñu tëbee dinañ def lu ñu war a def loolu baaxul moo tax rôle boobu bu koy joué da nga war a nekk nit ku dal da nga war ndax nit boo jiitalee xel rek dal lay indi ci yow mais bu fekkee dal gi newu fi discours bi ànd ak benn fitna bi loolu baaxul ndax day fekk mbir mu àggale ko foo xam ne àggu fa bu ko nit jàppee noonu soo moytuwul loolu dina am lu ko yóbbu mu tamit mu jëf-jëf yoo xam ne fa yëg yëgam toll rek foofu lay jëf ndax c'est proportionnel bu ko defee mu jëf loo xam ne waru koon jëf te l'islam dafa bëgg leen tuddee al-i'tidal wa tawassut mooy l'islam dafa bëgg nit ki am ak digg doom li ñu tuddee le juste milieu l'islam dafa bëgg ci lépp lépp pour gàttañu ba nekk fi dara ko nekk ay ñaawteef jàpp ne da nga war a lépp loo gis nga ni noonu la lu baax la waruñoo wax waruñoo jëm nekk sax di wax ne dañu war a woote ci l'islam pour nit ñi yooyu waruñu koo def loolu gàttañu bu jéggi dayoo waaye tamit nekk fi di wax ci benn discours boo xamante ni tamit ci ay soulèvement ak ay révolution ak ay yooyu ci la jëm nga xamante ne bu ñu fitnalee ci yoo xam ne bu ko ci jiwoon yow mi toog di ko wax sax soo loolu te ci yow ci yow lay njëkkee wala yow ci ñu njëkk a loolu ci loolu ci ngay bokk loolu bu boobaa fitna la problème la yooyu tamit discours bu mel noonu boote ni mu mais discours bi fi nekk mooy am nañ sañ-sañu sensibiliser suñuy ndaw sensibiliser nit ñi wax leen dëgg-dëgg réalité bi nekk ci àdduna ak fi ñu bëgg a jëmale àdduna bi ak lan moo tax ñuy bunu xatal jullit ñi di leen xoppatal di leen sonal ak di leen diaboliser ci àdduna bi lan moo tax lan moo tax l'islam bi dem Europe tey ba du fa installé wu jaaree ko ci immigration mu nekk problème foofu bu rëy rëy rëy ba ñoom ay islam de France bi kenn xamul parce que ñoom dañ gis ne l'islam nekk lu dëppoo lu méngoo ak seen système yi bu dee l'islam dëppoowul ak système ba nekk France mooy l'islam dëppoo ak système bi nekk Sénégal parce que benn mooy ne kon naam ñee dañoo jiital seen système bi jàpp ne l'islam da ko fa fekk kon système bi du ko may du ko fa may place ndax l'islam bi da koy déranger dañ fexe éradiquer ko mu jóge fa wala ñu juriye ko ba nga xamante ni daal dinañ ko mën a accepté mooy système sanitaire est-ce que comprendre na fii nag l'islam bi moo jiitu système bi léegi kon lan moo war a am mooy dafay buux di ko buux ndànk ndànk muy dem ba xajal ko noonu lay def fële dane ko duma la fi may place waaye fii da koo fekk mu toog ba pare mu koy buux pour mu bàyyi ko place bi kon li muy nekk mooy système la bokk la ñu bokk boo bokkul ak moom gis-gis du bokk ak yow voilà moom rek moo fi war a nekk leneen lu dul moom du ko accepté luñ la ci may rek xamal ni maslaa lañ ko tuddee li solof di wax maslaa maslaa la ñuy def yow mais nekkul ne dañ ko dañoo nangu ne lu jaadu may nañ la ko mais jàpp ñu ne lu jaadu démocratie bi fi nekk ci àdduna bi noonu la mel noonu la mel bu ci amee pexe da day fexe nga bàyyi bu la ko mayee da cee ñàkk pexe bu fekkee da koo wala gis-gisu ak ñi nga xam ne noonu la démocratie bi moo tax kon taxaw ci loolu benn bi ci des mooy say àq yi nga xam ne am nga ko ci sam réew yow nga jàpp ne citoyen nga am nga réew si réew mi nga dëkk am nga ay kayit yi nit ñi am am na loo xamante ne bi lii àq jox na la ko lépp loo xamante ne safaawul na safaanoowul ak sa diine ci loo xam ne àq la boo xam ne am nga ko am nga sañ-sañu tàllal sa loxo jël ko am nga sañ-sañu tàllal sa loxo nangu ko ci nit tooñ la tey nga par exemple jël ko dem yóbbu ko ci yoon bu fekkente ni xam nga ni tooñal la bu leer boo xam ne ci noonu rek nga ko mën a safarawee te boo demee yoon dina nangu sa àq boobu delloo la ko boobu waa loolu sañ nga ko boobu waa loolu sañ nga ko am na nag ñett si borom yu daan wax naan bu fekkoon ne tey nit dalaa tooñ tooñ boo xam ne dóor la laaj exemple laaj la dóor la laaj nga xam ne mënoo mënoo koo dóoral sa bopp te bëgg nga faj tooñ te boo ko yóbboo ci diw ma ne pour mu fajal la ko du ko dóor da koy rey waroo ko faa yóbbu loolu dañuy teg kon moom su tooñ yar bi naree am nga bàyyi moo gën su tooñ yar bi naree am nga bàyyi mais bu fekkee lu ci am te ci noonu nga mën a jëlee sax am nga sañ-sañ beneen bi ci des mooy ci lu wàllu jeu politique bi ak lan moo ci na war a nekk solo mooy li nga xamante ne moom lañ jëfandikoo wàllu nguur ak lépp lu ci aju ñu teg ko fi taxawal ko borom koo xam ne dañ cee wute am ci ñaari taxawaay ñenn ci ñoom dañ ne comme système bi du yëfi islam nee na yoon nekkul ci diine yow en tant que jullit bu sa ministre yoon nekk raxasu ci ba set wicc ndax lenn loo ci laal li muy tekki mooy yaa ngi cautionné yaa ngi ànd di xalaat mooy xalaat mu doon sànq ci loo xamante ni dafa waroo àtteb yàlla te loolu àtteb ceddo la kon fexeel ko bul ca laal bul ca wax bul ca laal continuer di jàngale ak a yar ba yàlla di mottali mbiram ndax loolu la yàlla santoon yonent yi ñu ñëw di woote di jàngale ak di jottali kàddu yàlla ñenn si ñoom kenn nit moo leen gëm yonent nekk na fi bu woote ba jóge fi kenn gëmoo yonent bi alayhi salaam waxal ne uridat alayya umam faraaytu nabi wa maahu rahtu wa rahtaan wa raaytu nabi wa maahu rajul wa rajulaan wa raaytu nabi wa laysa maahu ahad yàlla wan na ko xeet yi ni ñu ñëw yomal xiyam yaa nag seen yonent mu gis yonent bu romb mbooloo ànd ak moom benn yonent romb kenn ànd ak moom ñaar benn yonent romb kenn àndul ak moom koy kenn gëmu ko ci xeetam bu fekkee yonent bu yàlla yónni jox ko wax bi moo fi mën a nekk bu woote ko jóge fi nit gëmoo te yow doo yonent doo dara kon loolu moo tax yow defal li la wax jottali kàddu yàlla te bañ a yaakaar ne da nga am benn devoir de résultat loolu bu ko gëm résultat lu du yow ci sa loxo la nekk résultat yi ci loxo yàlla la yàlla moo ko indil bu ko soobi moo tax kon bu fi nekk di dugg ci ay affaire politique ak yu kenn xam yaakaar ne ci nga mën a jaare pour changer système bi système démocratique bi dugg ci biir changé wu yow lay changé Cheikh Al-Albani rahimahullah bi ñoom Abdourahman Abdul Khaliq Abdourahman Abdul Khaliq jàngal na ko moom Médine ci université bi égyptien la d'origine mu jóge fa dem Koweït mais commencé di góorgóorlu foofu ci wàllu daaw bu mu yàgg dugg ci affaire politique commencé dugg ci seen parlement bi Cheikh Al-Albani bi ko ko waxee benn baat la wax bu doy waar daf ne say ta'atharuun wala yu'athiruun daf ne dinañu jeexitalu ñoom ca fa ñu dugg mu yàq seen diine ja nekkoon ci ñoom xam-xam ba ñu yëngatu te duñ fa jeexital dara loolu la mu ne su ma déggaloon dina continuer ci njàngaleen bi mu nekkoon ak xam-xamam bi mu nekkoon continuer ci loolu di jàngale ba yàlla di mottali mbiram te bañ a yàkkamti dugg ci ay affaire parlement waaye li ko wax noonu daanaka boo ko xoolee mooy réagir mais des fois neexal na am nañu si jaar def lenn lu ñu tuddee yenn ay ay te ñenn ñi lay def turki la ñuy jox par exemple mais xam nga turki dafa nekk dëkk bu complexe boo xam ne li ñu bëri duñu bàyyi xel ci histoire am ak histoire am ak l'islam ak xilaafa gi fi nekk di fa nekkoon turki dafa am benn kii bu nostalgie bu nekk ci ñoom boo xam dañu bëgg a dellusiwaat seen grandeur ak place bañ amoon ci seen xilaafa gi jamono xilaafa gi dañ ko bëgg a amaat ci ci monde islamique te loolu xam nañ ci l'islam bi lañ ko mën a am moo tax amuñu trop problème ci jamono yi ci gidd boo xam ne wala benn président boo xam ne dafay am tuuti xëccu di jëm ci l'islam jiite leen ndax xam nañu ci loolu lañ mën a amaatee tamit sympathie wu jullit yi pour jullit yi ñëw ral yow ci ñoom pour ñu mën a amaat force force ak doole ba ñu amoon ñoom dañ jàpp ne seen xilaafa gi daanoo am na ci dëkku arab yi ñoo xam ne am na ci part de responsabilité loolu day frustration ci Turquie seen diggante ak yenn yenn arab yi mais ñoom jàpp nañu comme xilaafa gi seen loxo la nekkoon àdduna lépp topp seen ginnaaw loolu noonu mën nañu def ba am loolu moo indi léeg-léeg yenn déclaration yi nga dégg Erdogan di ko def ak yenn prise de position yeeg ak le fait muy taxaw léegi di défier Occident di wane ne moom moo nekk seen kanam mooy défendre jullit yi mooy rôle boobu la bëgg a joué waat place boobu lañ bëgg a am loolu moo indi da ngay gis ni mais nekkul ne jëmmi Turquie boo fa demoon dafay fekk état islamique boobu day acté islam wala yu mel noonu ñu bëri ñu doon dañ ciy juum démocratie moo fi te armée ba mos ko toog di seetlu bu fa ñu commencé changé di jéem a ñëwaat ay islam ak yooyu gars yi renversé seen armée bi dafa am doole trop te duñ seetaan yu mel moo tax wax ji mën na fee nekk yu mel nii rek mais trop ci li lay xam nga réalité bi dëgg-dëgg daanaka amul lu bëri ci ci lu changé bu dee ñeneen ñi ko fi jéemaatoon lu mel ne par exemple exemple jox ko lu mel ne Algérie ñu ko fi gars yi jéemee di dugg ci géopolitique bi ñoom Abbas Madani ak Ali Belhadj jamono fils front islamique du Sahel ba dem ba àgg ci pouvoir bi état kii bi dafa ñëw armée bi parce que tubaab yi xam nañ yenn liggéeyam bu ñu ko actionné changé waat affaire yi. armée bi dafa jóg nangu confisquer pouvoir ndax ñooñu dañ doon def lu bëri ci wàllu action sociale am ay hôpitaux am ay école liggéey ci ci côté boobu dem ba am doole ci dëkk ba ci réew ma bu baax a baax algériens yi bëgg leen fonk leen ndax li ñuy liggéey ak li ñuy def ci ci Algérie ñu jaaree ci loolu bi ñu présenté woo ci élection yi xëy loolu erreur la ndax système bi du faral di bëgg di bàyyi koo xam ne yow àndoo ci système bi ngay ñëw di bokk ci ci yëf yi di posé wu comme candidat bi man su ma ñëwee tey ni islam laa yor sama parti islam la bëgg indi islam laa bëgg a atte léegi dañ ma bàyyi ma ñëw présenté bu ma bokkul bi fale ñu xam ne kon islam danañu bëgg kii bi daf maanaam démocratie daf mën a déedéet yow bokkuloo ci loolu lañ may wax mais bàyyi leen ko maag ñoom la ñoom kay yow yow faloo ma ñoom ñoo may fal bàyyi ma man ma ñëw présenté ko su ma leen waxee ma bëgg buñu ma falee ci loolu te yow démocratie yaa nga wax mooy ne peuple bi ñooy gouverner sax wala la léegi comme loolu la kay bàyyi ko ñoom bu fekkee den loolu lañ bëgg kon kay li may def ba léegi démocratie dañ naan la déedéet du am loolu lañ def bu ñu juumee tamit ba loolu am dinañ ko jéem a fexe xool ñu ko ratifié ni ñu ko ratifié Algérie mooy renversé pouvoir bi armée bi nangu nangu nangu nangu ñu daal di jàpp ñu ne dem ci prison yi xeex ba ne ci coow la tàmbali deret commencé di dugg foofu la mujjee kenn waxu ci ba sànq ci suba kenn taxawul fa état islamique loolu mooy loolu mooy dëgg-dëgg vrai genre démocratie yi ñuy wax nii moo tax kon ñi ci ñu bëri di ci dugg yaakaar ne day yomb noonu rek nga ñëw ne noo affaire islam dem ay vote ñu voté la nga ñëw daal di ne naa changé ko du demee noonu lii lenn mën na nekk ñëw bàyyi fi yëf yi mu nekk fi ngay jéem a changé wàllu indi éthique wàllu éthique li ñuy tuddee éthique commencé defaraat administration bi xeex wàllu corruption indiwaat patriotisme defaraat sa réew loolu xëy na naa mën a nekk mais à condition que ba léegi régime bi nekk te yooyu sax boo ci nekkee am ci benn benn orthodoxie bi di ko appliqué ci benn façon bi da ngay déranger parce que dañuy wax dañuy wax mais corruption bi ñuy wax moom démocratie bi ñoo am corruption bi ñuy wax bu question ay nit ñoom ñoo am fay jikko nekk ay corrompu démocratie nekk fële nekk loo xam système bu bu set la déedéet démocratie bi ci boppam moo ànd ak parce que ci kaw ay nax la tegu lépp am ay nax la dafa am benn exemple bu ma ci joxoon beneen dëkk bu ma bu ma bu ma touché moom naa ko joxewaat ci TSK muy Dominique Strauss-Kahn bi nekkoon FMI ñu ko doon préparé xalal ko yoon moom juif la d'origine juif la nekk financier ñu ko doon xalal mu waroon a ñëw jël pouvoir bi en France ndax ñëpp seetlu woon nañ ne xëy na moom moo fi sas fi mu nekk nii François Hollande kenn du doon sax ay wax ñu ñëpp ci PS lañ nekkoon ba mu war a jóge FMI ñëw pour nag bu ñëwee France ñu introduire ko mu nekk candidat wu PS pour jël jël pouvoir parce que boobu Sarkozy daal na lool lool lool ba jàpp nañ ne bu ñamee élection dañ koy gañ Strauss-Kahn la ñu doon seetlu Strauss-Kahn lu mu def nee nañ dafa dem violer benn femme de chambre boo xam ne d'origine guinéenne la ci benn hôtel ca New York ku yor nguur bu toll noonu nekk président FMI di toog di wax président àdduna bépp di la déglu économie àdduna bi lu bëri nekk sa loxo nga def bañ day waajal dina fal France président ngay dem di sàkku benn jigéen boo xam ne dañ koy fal amul sax këyit États-Unis génne la jógee dem foofu di fa daan dooleem bu bu nit ñi duggee seen i seen i seen i nekk ba génn moom moo fay dugg di leen laalaata seen lala di leen fompal ay ay ay armoire ak ay kenn xamul ku mel noonu muy dem di ko di ko siif te comprendre nga fi mu jógee fi mu àgg bi ñu laajee yenn homme politique France lan moo war a mën a yóbbu Strauss-Kahn ba mu yàgg ci niveau boobu mu ne leen parce que ñu ne leen parce que politique dafa ànd ak prédation mooy politique bi jeu la boo xam ne daf lay def comme prédateur boo xam ne boo moytuwul bu yóbbu la ci côté boobu ndax nee nañ yow chasse maanaam rëbbkat ngay doon da ngay rëbb nit ñi foo toll yaa ngi rëbb nit ñi pour lan pour am loo bëgg ci ñoom da ngay bëgg a séduire nit ñi da ngay bëgg foo génnee nit ñi am fuñ la teg da ngay bëgg chaque fois nit ñi di am lu ñu lay jàppee ak bët bu ñu lay xoolee ba di la wóoru di la jox li nga xam ne yaa ngi koy bëgg di ko am ci ñoom léegi manipulation boobu benn jeu la boo xam ne da ngay dem ba roodee ci ba roodee ci ba sa àdduna yëpp su soo moytu ci loolu lay mujj léegi nag boo ci amul ay limite xam ci fi nga yemal fi nga war a yem rek lépp loo bëggati ci nit ñi da nga yaakaar ni loolu nga ko war a amee léegi nag loolu moo lay moo yóbbu nit mu ne ma nekk un prédateur sexuel kee loolu moo ko yóbbu ci loolu moo tax dem na ba kon léegi moom xàmmeetul lu mu moom ak lu mu moomul jigéen bu ko yàlla bu ko yàlla gis na ko xelam nekk na ci moom pour mu mot na ci mën a jot mu ñu ne loolu loolu muy dund ci suñu politique yeeg affaire démocratie yi mooy dem ba togg ko ci nit ki ba mu nekk ci moom kon loolu moo tax kon nax yooyu bu ci nit ki yàggee am naxeekat bu mag lay doon ka ca gën a mën a ñàkk wax dëgg lañ jàpp ne moo ci gën a nekk un tacticien un politicien dañ koy sax faral di wax naan moom dafa dee ci politique waaw ku mën politique ndax lan ndax mën a njuñ njaaj mën a wor mën a wax lii tey boo léegi mu wol ba ñu ko ne wax ko wol dégg nga mën a dóoranteeg yow fii léegi boo léegi gis da nga yor nguur mu ñëw di la sukkal ak raama pour ñoom loolu mooy dëgg dëgg politique loolu xëy na ñu dañ koy defee fi Afrique dafa ñaaw mais moom système bu démocratie bi ñu am lépp ci ay tactique la tegu ak wàllu naan ci lobbying la tegu ndax exemple bu ñu ci doon joxe léegi mooy lu mel ne États-Unis américain seen homme politique yi tamit noonu la ñuy naxee seen bopp amul benn différence ku fa bëgg a falu fu ne ko dugg lu ne leen ko wax ku ne nga dem di ko ay nit ay groupe ñooy ñoo fa am yoo xamante ni ay groupe de pression la yoo xamante ni bi ñoom da ngay ñëw jox lu mel ne par évangéliste yi da ngay ñëw ne leen gëm naa ne man bible bi li mu wax dëgg la message bible dañ ko war a sàmmaat ah dañoo war a dellusiwaat ci valeur yi dañu war a lii wax leen ay wax pour ñoom ñu jàppale mooy seen gars yi jiite seen église yi évangéliste yi boo ko jógee dem ci iPad bi nga xamante ne bi mooy seen seen kiiwu israélien yi xam ne dafa am doole waxaat leen ne leen ah Israël ak États-Unis seen relation dafay yàgg dañ leen war a kii dañ leen war a nangam man sax suma faloo dégg nga Jérusalem laay jàppee ne mooy capitalu Israël jox leen ay promesse yu rëy rëy ñu tàccu la pour jóge ko boo déglu benn moo dem ci noir yi ne leen noir yi dañoo yàgg sonn ci racisme ah seen àq dañ leen ko war a jox ah dëkk bi yéen ñun ak ñoom yéen a ko bokk bañ fi nekkee ba léegi racisme bi sonn ngeen ci loolu dafa war a jeexoo seen noir yi tàcc la boo fa jógee dem ci góor jigéen ñi waaw dañu war a am liberté tolérance boo fa jógee dem ci jullit yi seen diine diine ju rëy la image bu mag la yor Mouhamad c'est un grand homme ñooñu tàcc la ba jógee léegi loolu loolu nit kuy def loolu lan la mën a nekkee nit ku dëgg ci kaw loolu ngay def ba jot ci nguur gi ci kaw loolu ngay dox ba jot ci nguur gi la nga doon wax mënoo ko def yow sa bopp xam nga ni mënuloo ko def te doo ko def ndax lu ci bëri li nga doon gëmuloo sax te dafa sax lu dëppoo léeg-léeg ak réalité wu li nga fiy fekk ci nguur duñ sax dëppoo wax la rek juste pour wax ko mais xam nga ne bii après doo ko def ay préparation individuelle préparé la jox la ko jox la ay dox nga def moo tax kon bu fekkente ni loolu am na li ciy tane ci loolu mooy def li ku mel ne Cheikh Mouhamadou Moussa Seydi rahimahullah ubbee mooy bu ñu nekkee ci réew boo xam ne àttewul lislam ci wàllu démocratie la dañuy faral di xool ci ay élection yooyu te lislam xamul doxalin boobu lislam ahlul xalli wal aqd la xam lislam shura la xam ñoom jëfewuñu loolu léegi fii dañuy def consultation populaire ñëpp bay voté ñi xamat ñi xamul ak ñi wér ñi wérul ak ñi am ci jàng ci jàngul ak ñëpp nee nañ dañuy voté loolu de loolu déjà ça pose problème doomu aadama yëpp mënuñu yem doomu aadama doomu aadama yëpp doomu aadama yëpp seen seen carte ak vote mënut a tolloo mënut nekk loolu foofu laa ci yem du ma dugg ci du ma ci sori mais xalaat leen ci bu baax li wër te wóor mooy doomu aadama yëpp seen tànnin mënut a tolloo léegi bu fekkee dañu yamante ne ñoom ñëpp seen tànnin mënut a tolloo dañuy compter rek 1 2 3 4 1 2 3 4 ñoo yem léegi yow boobaa jullit nga nekk ci réew mu mel noonu ñu tànnee noonu lan moo fi sës moom mu doon wax mooy xool gi nga xam ne jàpp nañu ko tane mooy bu ñu nee maire la ñu tànn ñaari maire ngi nii maire bi diine mi ngi ci moom njullite mi ngi ci moom ay valeur mi ngi ci ñoom mi ngi ci moom gis ngeen ko am na yërmande ci nit ñi mi ngi jàppale boo xam mi ngi liggéeyal boo xam kële bu ñu ko falee mu ne la kàttan di war di jox ay soxlaam ak a def ay duubalam ak ay mbiram na mooy suufu jàmbur ak yooyu nga ne kon nañ xool bi nga xam ne jàpp nañ ne moo tane melul liñ bëgg à 100 pour cent waaye moo tane kon pour ñu minimiser dégâts yi lañ jàppale ko loolu tamit noonu la ko waxaatee ci wàllu nguur bu ñu demee bañ nañu fal nga xool boo seetloo ba ki nga jàppale moo fi tane ci ne mën nga cee minimiser yenn dégâts yi nga ñu leen jàppale loolu lañ tuddee ci daba xam ne dara lay parce que bu koy utal comme dara di ko koy faral di wax mooy xeex bi nekkoon diggante romain ak perse yi bi yenn temps yi sos bi nekk mag ci commencement l'islam te yàlla subhanahu wa taala waxoon ne gañe nañu romain yi waaye dinañ gañewaat fii ak ay at fii ak ay at te loolu ci ndimbalu yàlla def ne bi nasrillah yansuru man yasha daf ne bu leen bu ñuy gañewaat ci ndimbalu yàlla lañuy gañe kon ndimbalu yàlla moo leen di gañeloo ci kaw perse yi nga xam ne ay animiste lañu woon di jaamu ay ay ay ay xëram ak jaamu safara romain yi nga xamante ne diina ji ñu topp diina jóge ci asamaan la donte am na lu ci yàqu mais la chaque ne ñoo tane ñoo gën fuuf ñi nga xam ne ay xëram ak safara la ñuy jàmm moo tax l'islam dem ànd ak ñële yéefar yi nekkoon màkk di jaamu ay xëram dem ànd ak ñi nga xam ñoo jaamu ay xëram léegi lan moo tax jullit yi di faral nii li tax ñu leen di faral mooy boo dagee ñaari kuréel yi ñi ñoo tane kon ngañaayu ñi moo ëppal doole l'islam que ngañaayu ñële nga xam ne jaamu ay xëram loolu tamit moom moo fi nekk mooy ñaari ñi ngi nii ñoom ñaar ñëpp meluñu ni nga bëgg mais kenn ci ñoom ñaar moo tane ka ci des te faaw mu am kenn ci ñoom ñaar ku fan yaa ngi jóge ci kaw terrasse bi di daanu ñaari mbir a nekk sa kanam xar ak nit koo ci daanu ci kaw moo dee ci kan ngay daanu ci xar bi ngay daanu loolu ñu tuddee irtikaab ba xaftu dara rey loolu mooy irtikaab ba xaftu dara rey yaa ngi daanu mënoo bañ a daanu beneen bi mooy foo nga daan ci kenn ci ñoom ñaar imma nga daan ci xar bi wala nga daan ci nit koo ci daan ci kawam dafay dee da ngay daan ci kaw xar bi bàyyi ko ndax li ngay xool mooy yàqte bi ban moo ci gën a rëy nga jël bi gën a woyof nga nga nga fegee ko bi nga xam ne moo gën a rëy loolu mooy genre situation yu mel noonu nga xam ne ngànt la ci jullit bi du reconnaissance docteur nit ki bàyyi xel ñeneen ñi yaakaar ne loolu bu ko nit ki defee da caa ànd déedéet ànd noo ci mais da ngay jàpp ne da nga caa loolu da nga caa am ngànt ndax noo mën a def kii moo lay jiite comme moo lay jiite nag te li muy def day amaat conséquence ci sa dund ndax bu fi nekkee di bunu xatal jullit yi ak a def yenn yi yow di ko ci loolu bala nga amoon sax ci sago ci moom dund sa déedéet di ko ñàkk kon bul toog fasante say loxo ni sama yoon nekk comme ñoom ñaar ñëpp defuñ li ko bëgg déedéet dafa am lu am solo loo xam ne daf leen war a séparer ñaari mbir mooy li war a am ak li mën a am cheikh islam ibn Taymiyya rahimahullah leen képp kuy liggéey ci islam def daaw di def islam foog nga dissocier foog nga séparer ñaari mbir yoo xam ne bokk ñu waroo nekk idéaliste boo xam ne da nga naan li war a am rek moo war a am mais da nga war a xool li mën a am nga liggéeyee ko da ngay xam ne lii moo war a am bu yoon teg woon li fi teg woon ci yoon lii moo waroon a am waaye comme loolu amul ndax situation bi dëppoo wala loolu ma xool ne situation bi laaj ci li ma mën a def ma def loolu loolu mooy li mën a am te yàlla ci boppam sax bu jëflanteeg nit bu jëflanteeg moom ci li mu war a def li mën a def lay jëflanteeg moom ndax kenn ci ñun ku feebaroon tey mën na woor yàlla dina ko waroon par la force da ngaa war a woor boo feebaree mënoo woor yàlla dina ko woor loolu koy kon yàlla li mën a am li nga mën a def loolu la yàlla sant laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha bu dee yow nit nga nag yow doo yàlla doo dara ba pare nag ne li mën a am li war a am rek moo war a am li mën a am bu bu li war a am mënta am li mën a am sama yoon nekkatu ci loolu gën a kuréel bi li war a li war a am bu mënta am xoolal li mën a am nga xool noo ko mën a amalee ba minimiser tuuti dégâts yi loolu mooy fiq loolu lañ tuddee fiqul waaqi loolu bu boobaa tamit kon boobaa méthode ak doxalin bu mel noonu te bañ a dugg nag ci ay coow ndax ñenn ci boo leen waxee lu mel noonu dañ ci daal di dugg profité ci jaaree ci commencé nekk lu ci affaire bu militantisme nekk ay militant way parti commencé dem ci ay ay ay ay dajaloo commencé dem ci ay ay ay marché commencé dem ci ay lan la ñuy wax sax mooy dajaloo yi ñuy dajaloo di yor ay micro di wax meeting commencé dañuy meeting xëy na ci anglais lañ ko jëlee commencé dañuy ci ay rassemblement nekk yooyu xasbunallah wa ni'mal wakil du sa cër jàpp nga ne am nga rafet njort ci nit ki ne xëy na rafet njort rek la ndax li yor bi li ñu jàngoroon mooy lan ahsabuhu kadalika wallahu hasibuhu mooy bu ci doogu à 100 pour cent nit ñi ni ñu mel dëgg-dëgg yàlla dama ko xam am nga ci rafet njort xaaral ba nga xam ne mën nga koo jëriñ ci nee nañ koy boteel nga boteel ko teyam ci loolu mais bis boo fi commencé dugg ci defanteek waxanteek jug naan da ngay fajal bi mel noonu non seulement erreur na boo xamante ne sa diine jàngalu la loolu sa diine yaru la ci loolu mais soo moytu loolu ngay def mën na toppaat encore am ay répercussion ci sa diine bi ngay dund ndax mën nga tax ñu jëlaat ay fitna teg ko ci kaw fa nga bokk wala daaw ba nga xam ni mooy wooteeg islam ba nga xam ni moom moo la ñoroon te moo nekkoon sa yitte moom nga bëggoon a jariñ ñu jël ko tegaat ko ay fitna ci kaw jàpp ne yow da ngay dem di jàppale diw te yéen a fi def nangam yéen a fi def nangam pour bañ a dugg ci yooyu bul bul dugg ci ci ci yenn mbir yi bul ci àgg bul àgg fenn yamal ci li nga xam ne borom xam ne ubbee nañ la ne la sañ nga ko liñ la ubbee ne sañ nga ko te lu ñëpp sax ñoo ci ànd mooy buñ demee ba war a voté war a fal kenn du fale ñu lislaam naam mais comme nii rek lañ mën a fale nga xool ki nga jàpp ne moo tane nga fale ko kon ala kulli xaal bu fekkente ne ñu ngi ci ñu ñu ñu taxawee foofu bu fekkente ne ñu ngi ci suufu nguur boo xamante ne jëfewul islam li njëkk moo tudd suñu bët ba xam réel bi am lan la pour bañ a jaxase yi ndax lii ibni tey ibni tey ibni xayim rahimahullah di wax ci wax Omar ci mu waxoon bi Omar waxee ne sa yulqabu wala yulqabu urwa islami urwatun urwa ida nashaa fi islami man lam yaarif jahiliya ne fasu lislaam yi nga xam ne ñoo téye lislaam danañ ko fecc benn par benn buñ demee ba ñu nekk ci lislaam xàmmeetuñu ceddo nee na bu boobaa dina yàq lislaam ñaari tekki laam bu dee ñi nga xam ne dañu nekk ci lislaam xamuñ ceddo mu mosuñoo jaar ci ceddo lislaam rek ci lañ xam duñu xam valeur lislaam ndax balaa ngaa xam valeur lislaam nga jaar ci ceddo ba ñëw yàlla baaxee la nga gis lislaam daanaka lislaam bi doo ko gëmee saxaaba yi loolu taxoon lislaam gëmeewuñ ko woon ndax dañoo ñam lu safaanoo lislaam nga xam na ca nekk ci ak suufee ak ci mbonte waaye beneen tekkin bi nga xam ne moom la nga tekk ci Ibnul Qayyim wax mooy koo xam ne mënta ràññee bi lislaam ak ceddo buñ demee ba nit ñi fi nekk xàmmeetuñu lii lislaam la lii bokkul ci lislaam ak ceddo la mu ne ci la nit ñi di yàqee lislaam ibnu ibnu tey Ibnul Qayyim rahimahullah ne li yàq diine yépp mooy def ci lu ci bokkul nga jël ko ne li ci la jëlee ci ceddo li jël ci dugal naan ci la wala fekk lu ci ne nga jël sànni ne bokk ci هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه